ñu ngi koy jaajëfal bu euh, baax a baax soxna Faty euh, ci euh, xibaar yi di jaajëfal bu baax a baax waa Fast Track ñi nga xam ne ñoo leen may seen émission waa Yoor Yooru Kajoor Faty maa ngi lay ziar. waa ji Pape ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax. na nga def ak coono yi. sant rek sant alhamdulilah. yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. waaw ñoo ngi ci jàmm ñoo ngi sant yàlla bu baax ci loolu. indi rek naam. baarakallah alhamdulilah tabaarakallah. macha allah indi rek naam. tabaarakallah indi ay <laughs> ay ca li gënoon a fës ci xibaar yi ginnaaw waaw ñu njëkkee ko rek euh, comme ni nga ko waxee rek point du jour. Hmm. nga xam ne nag euh, ci test yi ñu def toll na si junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ñett. Hmm. mu am ci téeméer juróom-benn fukk juróom-ñett muy 168 yoo xam ne moo ci positif taux de positivité bi nek dans virgule 12 bu euh, xaw manki touti donc cas positif yi am na si juróom ak ñaar ci ay cas contact suivi amul cas importé amna témir que ak euh, fuk ak euh, ñent yo xamné transmission communautaire la amna témir fuk ak fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne nañu am ñent fuk ak juróom-ñaar yo xamanteni ñu ngi leen di jël en charge du service de réanimation yi am fuk yu ci genn adina muy lim bu xaw a takku démb yem ak fukki fan ak juróom ñet ci weeru janvier 2020 Euh, ñeneen ñi nag nee nañu seen état de santé mu ngi stable nee nañu nag tey Sénégal mu ngi toll si ñaar fukki junni ak ñett yu toftal ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari cas positif ne fukki junni ak juróom-ñeent yu toftal juróomi téeméer ak fanweer ak benn wér nañu juróomi téeméer ak fanweer ak juróom benn yi génn nañu àddina ñetti junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoom la ñuy wéy di defal seen traitement kon waa ji Pape loolu mooy point du jour ci wàllu Covid 19 beneen bi aussi euh, ñëw nañu ci li nga xamante ne rek euh, njiitu réew mi Euh, def ko def muy jëm ci wàllu euh, yokk li nga xamante ne moom moo di euh, couvre-feu bi si Thiès ak Ndakaaru couvre-feu rek la si diggante Thiès ak Ndakaaru nee nañu nag gouverneur bu Thiès nag dafa daal di bind ñaari arrêté publier ñaari arrêté benn bi dafa jëm ci rek tere ni ñi circuler ci diggante 21h ba 5h du matin si région de Thiès. du 19 au 26 janvier maanaam fukki fan ak juróom-ñeent tey ba ñaar fukki fan ak juróom-benn si weeru janvier. donc nee nañu nag beneen mesure bi benen mesure bi nga xamné benen arrêté bi nga xamné gouverneur signé nako tamit dafa jëm ci tere lepp lo xamné jëm na ci walu manifestation rassemblement ci biir région de Thiès ci période bobu rek ci diganté 19 euh, ba 26 janvier 2021. nee nañu nag lu soxal nak ñaari euh, ñaareelu euh, arrêté boobule ñi nga xamné ñom la ñom la ñom la ñom la soxal moom mooy euh, cortège yi nga xam ne dañ ko daan faral di def défilé yeeg euh, rassemblement yi maanaam bépp dajaloo manifestation yi ñu daan faral di def ci biir euh, mbedd mi réunion publique yi fu nit mënti nekk di fa daja rek tere nañ ko réunion privée yi même boo tëjoo ci sa biir kër ngeen nekk lu lu bari ci ay nit tere nañ ko cérémonie familiale yi nag moom tam tere nañ ko lu jëm ci wàllu mariage ak ngénte yeeg réception yeeg ba ci cérémonie religieuse la yëpp tere nañ ko donc euh, rassemblement yi ci biir euh, béréb yi nga xam ne ay lieux publics la ak rawatina hôtel yi lu ci mel ni salle de spectacle yi dancing yi fi ñuy feccee ak baar yi salon de thé yi café yi plage marché hebdomadaire yëpp dañ ko tere maanaam duuma yi terrain yi nga xamante ne ak salle de sport yi nga xamante ne dañuy faral di dajale ay nit ñoo xam ne ñuy def sport ñoom itam tere nañ leen euh, dajaloo boobu kon nag euh, loolu mooy wane ni euh, fi mu nekk ni moom loolu yëpp ay manifestation la yoo xam ne tere nañ ko bu ci kenn def bu ko kenn def ci diggante Thiès ak Ndakaaru donc loolu moo fi bees beneen bi aussi ñëw nañu ci mouvement ànd sàmm jikko yi nga xamante ni ak ànd ak li nga xamante ni moom moo di Ligue des imams et prédicateurs du

ku d'accord ci idée boobu nga teg mu daal di signé. Hmm. bu signé boo amee euh, yenn limu signature moom ngay dem déposé ci assemblée nationale ne sénégalais yi kat nañ ci million wala ñaari million ba ñetti million ñoo xam ne d'accorduñu ci euh, ngóor jigéen am ci réew mi. dañu ne nag nañu ko nañu nañu teg benn loi boo xamante ne bi daf koy criminaliser donc loolu jàpp nañ ne daal taxaw nañ ci te fas yéene wuñ ci dellu ginnaaw benn yoon ndax gis nañu ne ñi ñu jàmmaarlool ñi ñu jàkkaarlool en face ñoom dañoo am seen agenda bu ñu teg kon ñoom faaw ñoom itam ñu am seen agenda boo xamante ne bi ci la dox bu ko defee ñu mën di contrecarrer lépp loo xam ne ñu ngi koy indi di ko teg te méngoowul ak suñu diine wala mu méngoo ak suñuy principe ak suñuy valeur voilà. Euh, am na solo soxna Fatou ñu ngi lay jaajëfal bu euh, baax a baax ci yaatal gi. Euh, di ñaanal ñi nga xam ñoo loru ci jàngoro ji rek yàlla yërëm leen. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo ca di wopp yàlla féexal leen. Mm-hmm. ñi nga xam ni dalu leen yàlla na yàlla sàmm leen. aar leen làq leen fa yàq yeggul ba mu bañ leen a daal. couvre-feu bi day yokkati na nu ko. ah waaw alhamdulilah ah dama naan alhamdulilah wala boog ñu ñu war fas yéene bés xol yi rek. te ah, muñ waaw parce que man xam nga. fas yéene bés xol yi te muñ te xam ne <laughs> ah, en tout cas daal problème nekkati ne suñu ndoot. waaw xam nga li ma ci jaaxal. waaw mooy yi nga xam ne moom la gouverneur wax. Mhm. yi ànd couvre-feu bi. Mhm. danoo ëpp njariñ lool couvre-feu bi te yooyu kenn respecté wu ko. Mhm, maanaam Euh, oto yi feesaay bi. Mhm. xew yi. Mhm. yi nga wax mhm. cérémonie yi. ak yenn ndaje yi nga xam ne ñooy faral di am. yooyu yëpp ñoo ëpp njariñ. maanaam yooyu ko sa ki yoon ci daal. waaw ñu waaw ñu farlu ci bu baax a baax a baax. ba seen tere googu nga xam ne tere nañ ko ñu ñu ñu jëmmal ko ba nit ñi ragal koo def. waaw te yooyu moom vraiment tey la oto yi gën a fees. tey la nit ñi gën a xew. tey la nit ñi gën a daje. tey la mbooloo yi gën a bëri. te ñooñu xëy na. Euh, nañ leen waroon tegee daani wala am ci fulla matukaay bu mat sëkk loolu lañ jël def ko ci couvre-feu ba en tout cas jëmbal nañ ko dal ah. jëmbal nañu ni ah. yoy yep téré nañ ko xam nga ah. jëmbaluñ ko won donc bu démé bu ba ko nak dañu fexé ba jël ay ressources humaines jëmbaluñ ko woon bii passé dugal leen waaw jëmbaloon nañ ko mais depuis bi tambali waté lay laay wax si si si bi passé si si li nga xamantene mom modi moo euh, couvre-feu bi ak état d'urgence bi daanaka euh, defuñu ci won ay arrêté yo xam da fay léral ni téré nañu euh, rassemblement yi mu nek lo xam lu leer la ci askan bi donc lool motax ñu japp né dal xeyna na ko téré dañu aussi fexé ba hmm. nit ñi ñu fexé ba ñu mën ko respecter mais également ñu jël ay police

gëm di ko takk ci ni nga ko war a takkee mm-hmm. mais également nga respecté geste barrière yi pour nga mën caa mucc bu ci bu ci yàlla àndee mm-hmm. mais également li ñuy faral di wax rek mooy kenn ku ci nekk rek xoolaatal sa bopp xoolaat sa jëmm parce que dañ koy wax de mm-hmm. mbir mi moom faaw boole ci euh, tuub Hmm. te dellu ci yàlla te xam ne ñaawteef dina ci réew mi tànk moo ngi fi rek yàlla mën nañu di boole ak ay musiba yoo xamante ne tout le temps dañ koy muy obligé di supporter hmm. te duñ ci mën dara kon nag loolu moo ñuy sóobu sax moo tax ñu sóobu ci ñaareelu euh, élément bi ngeen woon hmm. euh, wax ci wàllu sàmm jikko yi nga xam ni euh, ligue de imams defe naa ñoo ko taxawal waaw faatu pétition bi nag moom xaw ma ndax Thiès dong la yam xaw ma ndax réew mi yëpp la pétition bii ñu bëgg a def national pétition nationale réew mi yëpp la. réew mi yëpp la. ah kon de war nañoo rus a am un million. ah waaw ci dëgg-dëgg. <laughs> bu fekkente ne ah. ay jutil lañu. te li hmm. woote woo mi ci ñun. Hmm. ah war nañu fexe ba am ci lu bari yow sax ah. naa la ci jox après. jox ma ca yow moom faaw nga jot ci yoo xamante ne boo demee seen koñ jéem def. Ah. Euh, sensibilisation waxtaan ak nit ñi pour ñoom itam ñu mën a signé parce que dafa am solo. trop kenn li ñu bëgg bu sottee tey jii. Mhm. yow ci sa bopp muccoo ci sa njaboot mucc ci. Mhm. ngay gis ñu taxaw àndandoo di ko xeex. jàpp mhm. yaakaar naa kenn warul laa ah, kenn warul a gis ci ginnaaw. da nga war a bokk si ñu nekk au devant. parce que kenn du ko seetaan kenn du ko bay bayal muy am. ni nañ ko seetaan nag ba ci suñu biir loi yeeg lépp ñu dugal ko ci. Ah parce que code de la presse bi nga xamante ne moom lañ doon euh, moom la njiitu réew mi signé bii passé. Euh, daal di euh, daal di koy signé. code de la presse boobu boo xoolee décret d' bi ci biir code bi am na article boo xamante ne bii. Euh, dafay tere ñun médias yi ñi nga xam ñoo ne ci organe de presse ñuy tudd sax lu jëm ci borom ñaari tur yi. Mm, voilà dañu koy tere. dañu koy yoon a koy tere. Mm, yoon la koy tere. Mm. donc boo ko defee yoon sañ naa dal sa ko parce que yow da nga leen a discriminer da nga leen a joxoñ baaramu tuuma da nga leen def loo xam ne waroo leen koo def. kon nag ñoom góor jigéen ñi. ñoom ñoom góor jigéen ñi borom ñaari tur yi. voilà léegi nag muy leer ñoom góor jigéen ñi dinañ seetaan na xoolal dinañ seetaan ba xëy rek suñu arsenal juridique bi yëpp ñu def ci ay dispositions yoo xam ne daanaka légaliser na leen. ko defee nañu toog di di ŋànga ka ngëpp nan lii naka lañ ko mën a seetaanee ba mu am waaw te xam nga euh, lu am solo nga leeral foofu faati mm. xam nga nit dañoo defee ne seen xalaat maanaam toog di naan non li am li war naa am mm-hmm. noonu la réew di doxee déedéet réew ay texte lay doxee mm-hmm. te texte yooyu maanaam loi yooyu nga xam ne noonu lay doxee mm-hmm. euh, ñun ñoo koy faral di voter en général te sax duñ ci bàyyi xel xam nga loi moom wax dëgg yàlla dafa war a nekk loo xamante ne euh, bu ñu koy voter waaw dañuy seet loi bi ba xam ndax nit ñi d'accord nañ ci loi bi loolu yoon est-ce que loi bi reflété na seen li ñuy dund ak seen gëm-gëm seen bëgg-bëgg loolu la waroon mais waroo jël loi yoo xamante ne leer na na ni reflété wul bëgg-bëggu nit ñi andut mm. ak seen bëgg-bëgg andut ak seen diine nga bëgg leen ko imposer mm-hmm. sous prétexte que ne da nga am à l'Assemblée nationale une majorité mécanique boo xam ne loo indi boo newoon sax nañu jàpp taw bu nekk kër gu nekk nañ jàpp taw ba ren ñu ne mm. waaw waaw nañ leen jàpp ren ah, parce que ñoom majorité mécanique la yow la ñu àndal àndal à tous les coups donc loo bëgg rek ñu daal di koy def waa ji de waxoon na ko ci jamonoy. dafa yéeme euh, jamonoy euh, président bi fi wàccee. am na ku nekkoon assemblée damay bañ a jaar ca tur ba. Mhm. mooy waaju njool ja rek defe mhm. naa sa nekkoon na xam nga président de nangam sangam. Mhm. Euh, mu ne woon góor gi daal daa baax rek. waaw ndax bu ne woon dagg leen seen benn nopp. danoo war a ñëw ne ko Fallou Ndiak wàdd Fallou Ndiak da ngaa baax déedéet. da ngaa baax ne boo ne ne bu la neexool nga laaj ñu ñaar yëpp. wallaay ndeysaan nga dagg nopp bi jox <laughs> waaw nee na nee na nee na réew réew mi dañu war a delloo njukkal wàllu la njaag waaw ndax ñun assemblée bu ne woon dagg leen seen benn nopp ñoom ñëpp di war bu bu yemoon foofu faati buñ daggee benn ñu dese benn mhm. waaye daane bu woon dagg leen seen benn nopp mhm. dañoo war a ñëw ne ko da baax ne bu la neexoon daggaloo ñu ñaar yëpp mhm. <laughs> waaw waaw maanaam pour walla comme li nga xam ne xam nga di voté loi boo xam ne balaa maa dégg ñu naan ñun askan weñu fi teg waaye askan wi bañ leen fi tegee teguñu leen pour seen njaaxum yooyu waaw askan wi li leen fi tegee da ngeen di waxtaan ak ñoom ci li ñu bëgg mhm. ngeen xool ñoom li ñuy dund lan la ngeen dem di voté loolu mais assemblée boo xam ne kenn xamul lu fa xew rek mhm. kenn xamul lu fa xew waaw waaw vraiment ah en tout cas de pétition bii de li ci yéeme mooy tey jii boo xoolee du ñu weesu sax boo xefee ñu du ñu àgg ci un million de signature pourtant ay jullit a fi ne de wax ba wër la naan la waaw nañu ba xeex mbon gi ci réew mi ah, ah. koo ci woo sax ci nii am ñu ñëwoon wu ci sax ah. fexé ba wuri ay signature jaralu ko. wallahi wallahi wallaay. mais finalement après li ñëw na ñun ñëpp ko nara bok waaw to gis na ni gis nga faati gis nga li ni jarul sax dem di wër kenn ko nek rek koñ ba nga dëkk rek. Mhm. bu ñu bo leen bindé ah, ñu approuver ko signé. waaw jeex na. kër ga day daal di waaw parce que pour ñu xamni pour ñu xamni tamit mo moomuñu ñu. Mhm. mais mënu mënuñoo tok ñun tamit suñu néeg suñu salon yi di wax rek. ñom ñuy def li ñuy def. li ñuy def non la rew di doxé dé mhm. rew ci ay kayit ay texte lay doxé mais du suñu wax yi mooy doxal réew toog sa salo di wax nooy li lii du fi amee ba ba ñàkk amee sàggan nañu ba ñu signé ko gis nga bëri na yoo xam ne nag mi ngi xew ci réew mi nga naan waaw li war fay am fekk ay kayit yu leer nañ la ñu am uh-huh, uh-huh. ay kayit yu leer la ñu am ba ñuy dugal seen i kayit yooyu nag yow yaa ngi tëdd di nelaw oustaz Alioune Sall uh-huh. dañoo mos ànd ci xam nga euh, waxu euh, imam Pambay bi dafa am lu mu ma jox li mu ne ñoom lu mu leen jaral ñun nanu ko jaral parce que ñoom ñoom ñoom ñuy def jëf ju bon yi mhm. euh, seen xeex bi dañ ci am ay jëm ay jumtukaay def ci mhm. matukaay yu mat sëkk mhm. Oustaz Alioune Sall dañoo mos a ànd fii ci promenade bi ndeysaan ma koy dosé ndeysaan ne ko waa Oustaz noo gisee suñu promenade bi nag rafet na de mun a fexe leen ba ñoom ñu bañ leen cee ëppale ma ne ko Oustaz dégguma la de mu fexe leen ba ñooñu seytaane bañ leen cee ëppale waaw lu nu xëy def ci tey ginnaaw nee nañu yéen yéen a ko bokk. Mm-hmm. yéen waa Thiès ñëpp ko moom. Mm-hmm. ñoom lu nu xëy def fi tey. Mm-hmm. ngeen ngeen xëy suba def fi leneen. <laughs> def fi leneen na war de. lu nu gont def fi tey. ngeen gont ëllëg def fi leneen. waaw waaw léegi nag ci la gaa yi commencé di fi amal ay conférence ay programme religieux. ay nangam sàngam mais bañ koy soog a euh, tabax. foogoon nañ ni ay podium ak concert donc moo feeram waaw léegi lañ léegi ñu commencé ñemee di fi def ay ay ak ay gàmm ak ay nangam sàngam sangam ay cérémonie religieuse mm-hmm. waaye daal pour walla ni xeex faati gis nga tey jii bokk na ci ba ci suñu wàllu euh, télévision yi mm-hmm. euh, bokk na ci fi ñu fi ñu tardé. Mm-hmm. ba ba mu dominer xeexam ci wàllu mbon mooy ñun toujours dañ den dénoncé mais daa waaw koy daawuñu def dara loo xam ne indi programme boo xam ne mhm. ñoom war nañ koo jëmmal. dénoncé proposé. waaw waaw mu leer la ne yow lii du mujj fenn. xam nga seen film yi ngeen teg baaxul waaw seen waaw euh, initier projet de loi pour fexe ba loo xamante ne lii sa sa sa diine daf la ko xeexloo ba fin. Mhm. waaw waaw. xam nga doon toog naan waaw xam nga film yi ñuy teg baaxul waay waay film yi ñuy teg baaxul te télé bi faaw mu tegi film. Mhm. jéem leen a joué yéen ay film. de réaliser leen ay ay ay émission yoo xam ne moo gën émission yi ngeen di kaas. réaliser leen nangam tribune boo koy defee waaw am na yoo xam ne tey jii gis nga am na film boo xamante ne comme li ngay wax imaginer weeru koor waaw bu ñu duggee ci weeru koor télé bu nekk ma ngay commencé di jël ay comédiens yu ñàkk fayda ñu ñàkk solo ñu ñàkk diine jël leen ñu ñuy foowe yu ñàkk solo yu soof di ko teg nit ñi di ko seetaan di ca di mais te di ay jullit war caa jooy d'accord war a jéem a seet nu mu dañee tey ji boo gisoon koo xamante ne ki dafa jóg rek ne dama bëgg inverser tendance bi. Mhm. doo am benn télé bu la koy nangul. d' accord foo koy teg nga dul am. mais attention Fatick euh, bul euh, bul fàtte xam nga ñooñu li tax ñu am euh, opportunité boobu. Mhm. dañoo am seen sponsor rek. donc moo tax moo tax ba télé bi ba tëjul leen seen bunt moom bu ñu fa doon ñëw di fecc di summeeku def yaramu neen di fecc sax. te di fecc sax ñoom lay teg. ndax dañoo dañoo dañuy dugal xaalis. ci télé bi xam nga dañuy dugal xaalis certes man weddiwuma loolu nga wax noonu. dañuy dugal xaalis certes. mais dafa am loo xamante ne mooy mooñ wala moom mooy ñuluk borom télé bi. borom télé bi day seet li nga xamante ne programme bi nga xam ne bu ko defee mu am mu am retour. waaw mu am retour xam nga sponsor dañ koy woo parce que programme bi daf ko intéressé parce xam na ne bii programme dafa nekk loo xam ne ñu bari ñu ngi ko suivre mhm. loolu moo tax muy sawar ñëw di dugal ay annonce mhm. ak ay publicité mhm. mais bu fekkente ne programme la boo xam ne yaa ngi ñëw di def lu sérieux leen la ne yow fukki nit suivre la parce que leen dañuy ñëw rek romb zappe boo leen doon tegal théâtre boo xam ne li diine wax la wax ci koor ak ci lépp mooy nit ñi ni ñu mel ak li ñu bëgg noonu la leen euh, borom télé yi ak promoteur ñiy promouvoir programme télé yi ñoom ñoom noonu lañu leen di wuyu rek. waaw loolu ñu demee ba bëgg lu baax. kon lu baax loolu mooy am ci télé bi mais comme ñëpp dañoo bëgg caaxaan bëgg foo bëgg fowe diine. waaw ah, bu ko defee ñu proposé leen loolu rek. waaw booy jaay dara leen ko rek. booy jaay dara sax te boole woo ci ay jigéen ñuy caaxaan. kenn du ko xool waaw wa wa wallaay wallaay wallaay ndeysaan euh, léegi dem nañu ba doona sang keroog dama koy fee ndaw sang may reetaan euh, doona sang bi amoon fii ci mm-hmm. promenade bi mm-hmm. euh, ñu équipé ay xale yu jigéen mm-hmm. kenn ku nekk sañse waaw ah. sol sa tubéy ju dang wallaay ndeysaan sol sa buddi waaw waaw di jaay léegi bu nit bu nit rombee ñu woo la ñëw taxaw baab la baab ba nga jàdd mën ci waaye yéen ŋàcc suñu gërëm bu doon góor a fa taxaw kenn du ko mën na gis nga nit ñi ñoo bëgg caaxaan. Ah. loolu moo tax bu leen jigéen woowee ci dara ñu dem. Ah, ah, parce que la nekk ci seen ginnaaw bopp ci seen esprit ñoom ñoo ko xam. jeex na tey jii tey jii da xool euh, ba ci ba ci boutique yi. Hmm. ba ci yenn station yi jigéen lañ fay teg léegi. waaw jigéen lañ fay teg te nag ay. nañ la fa teg ngay solo ay gram bu bëgg kii xool. nan la fa dul teg sax ba di la ba di la fa kii. <laughs> lay lay boo solo la fa teg ah, parce que yow la ñuy jaay en fait la ñuy jaay te xamoo loolu. kii yow la ñuy jaay. voilà yow la ñuy jaay moo tax. Euh, wóode moom nu mu la gisee rek. waaw jéem a teg kon sàmm jikko yi nanu gën a am taxawaay. waaw te dëgër bu baax a baax a baax na si ñëpp jàpp. the front of the ay ci mi ngoog euh, askan wi de xam naa ni bu ñu yeewul it moom ñu ngay jaar seen kaw mm-hmm, mm-hmm. Euh, am na am na yoo xam ne war nañ cee gaaw jóg. waaw waaw waaw jéem a xool nu ñuy sàmmee suñu jikko yi. li mm-hmm. ñu desee ko si néew. ñoo xam ne ñun ñoo ko teg suñu bopp ba léegi rëccuñu. waaye diini ji ñu am. Euh, kilifa yi ñu am. gis nga ndeysaan yi am na bëri ñu bari ñu naan même kilifa diine ñi am sax. bu ñu dellusiwaatoon ci kaw suuf. Mhm. ñoom dañuy jaaxle. ndax dañu naan mais ñun loolu ñu liggéeyoon pour nit ñi anamu. anamu kenn ku nekk nga xam ni say téere waaye nag Faati nag waroon nañoo xam ne li nga ci ñag bi rek la jëm damaa xam ni téere mag ñii. Mhm. nga xam ni lépp programme la. Mhm. programme dundin. xam nga ne ko jàngale ba jàngale mbay mbay. nu ñuy bayee. jàngale euh, wàllu wér-gu-yaram. jàngale économie jàng lépp. waaye ñun daal seeni téere xam nga ñun luñ ci xama ah. wooy wooy xam nga dafa am loo xamante ne députation naa nii <laughs> wallaay ñii dañ joxe fukki dërëm ak ñaar fukk ñu naan di wa tabe xamoon nañ ni fii dong la ñu jëm jëm neexul mais xam nga dafa neexut a wax nag hmm. mais booy xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo seetloo doomam yi nga xam ne amoon na leen hmm. daanaka bi mu génnee àddina ay jigéen kese la dese hmm. dafa am lu suñu borom doon jàngale gis nga noonu le mosul nekk ki nga xamante ne moom nga jur. nga war fee jóge mu mu mu remplacer la. kooko jóge fi gi ñoom remplacer ko ainsi de suite ñu ñar koo toppante si njureel. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee ñi ko doon ñi nga xam ne ñoo ñoo nekkoon lee xalif ñeenti xalif yi topp si ginnaawam yëpp ak xalif yëpp sax daanaka ñi am ak moom ah, mennum àllin moo am ci am ak moom lien de parenté pour dire que dañuy xool nit ki ci ragal yàllaam ak ci ak ci taxawaayam ci diine ji wala ci ci ci askan wi naka naka lay comporté woo. Mm-hmm. ñu jéem koo xool ci loola daal di koy jël teg ko ci boppu kuréel gi. Mm-hmm. mais bu fekkente ne dangaa jël rek koo xamante ne kii ka mu jur moom ngay jël ainsi de suite. Mm-hmm. ñamu jur mën na am ñoo xamante ne ci ci entourage bi. ñu ko ëpp mérite fuuf te teguñu leen fa. loolu mooy tax kon lu ci bari. léeg-léeg ñuy a problème boo xamante ne bii demee ba ci biir euh, héritage boobu dafay faral di dem. lu bari di ci ci di ci yàqu. muy soxla ànd ak loo xamante ne aussi nañu koo nii am na ñoo xamante ne taxaw yàq moo leen tax a jóg. donc li nga xam ne moom la ñu amoon fii akus néew bu fekkonte woon ne bàyyee nañu ak suñu suñu xel mu dal mhm. wala bàyyee nañu ak suñu stratégie kon amaana yàqute gi du egg fii mhm. mais boo xoolee dafa am ay forces yu bëree bëri des forces étrangères yu bëri yoo xam ne ah. dañuy ñëw pour infiltrer pour yàq li nga xam ne moom moom moo fi nekk comme héritage te yàq boobu tey jii ñun ñëpp ñoo ko sentir parce que daanaka diine ji moom tur wi rek a fi ne donc lu ci bari tur rek moo fi ne. Mhm. Mhm. walaay fàtti euh, dëgg la ndax boo xoolee bu dee nit a mën a jóge réew indi la alal ju weex tàll. Mhm. Euh, te te nit ñi ndeysaan euh, parfois nag xaw ma dama dul bàyyi xel yenn yi xaw ma ñoo koy tey dugg ci parce que nag jékki-jékki rek ñu jékki-jékki rek mu mel ni benn sect waaw. bari na ah, fi ay lobby nekk sa ginnaaw bari na fi yoo xam ne daal ñu naan diw day dem bitim réew di ñëw. da leen dul wóolu sax ci biir ci biir loge yi. am na ay sëriñ soo xamante ne ci biir réew mi boo leen dee ah, xool di analyser seen biir ah. wóolu woo leen si njibar wóolu woo leen si franc-maçonnerie te ñoo ngi fi ne xus ci biir dëkk bi yor ay tur ay nit ñu baree bari des milliers de jeunes di leen topp liggéeyoo dara ay mag sax yow looy liggéey liggéeyoo dara liggéeyoo bëgg yor loo xam ni euh, kuy am ko ko ëppale hmm. Hmm? wax dëgg yàlla buñ dem biti réew demal biti réew téeméeri yoon. demal seen jour biti réew du tax nga am dara waaye walaay du alal boo bëggee dëgg yàlla dëgg yow alal ci sa bopp du nekk sa objectif. déedéet mën nga nag am alal mais nekk sa objectif wutoo ko. wallahi yàlla mooy joxe xéwal mooy joxe wërsëg. wallahi te nag nga toog ak nga nga nga def ak loo mën ci def rek alal ji lii sa wërsëg yàlla dina la ko jox. donc dafa am loo xamante ne lii nag nit ki bu fekkente ne mi ngi topp di lijjanti li nga xamante ne moom la ko yàlla assuré wërsëg bi nga war a dundee moom alaa kulli al yàlla moo ko assuré. amul ma dem te ñëw waroo cee sonal sa bopp. li nga war a sonal sa bopp kay mooy fexe ba. xam nga li tax yàlla sàkk la fi nee na la pour jaamu ma yow ak jinne doomu aadama ak jinne li tax ma sàkk leen mooy pour ñu jaamu ma muy dem di wuti alal bàyyi bàyyi objectif principal bi tax mu wàcc waaw lu mu ciy gis mooy yooyu alal jooju day mujj nekk diineem. waaw donc sonal ko wit. kenn du ko ko alal sonal ko. waaw diine sax du ko ko xañ day jël diine ji jox ko benn waaye ne yow yow laa dénk lépp. waaw ndeysaan bu ko defee gérer ma sama diggante ak sama borom. ma gérer ma gérer sama diggante ak àddina ak alal. ko defee comme li waa ji doon wax rek am na benn vidéo bu doon bu doon jàll si réseaux sociaux yi fan yi mm-hmm. muy wax ju am solo mm-hmm. boo amee fullay gérer sa àddina mm-hmm. bàyyi woo bàyyi woo ko sëriñ bi mais war ngaa am fullay gérer sa ëllëg wax yàlla mais nga ñëw ne sëriñ bi gérer ma ëllëg man ma gérer àddina ba ngay yëkkati sax di jox sëriñ bi ci loolu wallaay wallaay ndeysaan dañ dul xalaat wallaay wallaay dañ dul xalaat wallaay dañ dul xalaat moo tax sëriñ Saliou euh, Touré yal yàlla guddal fanam te yokk wéram ndeysaan daa mos a génn rek ñëw gis euh, néegam mhm. euh, saal bi ñu rido ko rido ko ñeenti koñ yëpp mhm. mu ñëw dugg ne waaw ah, lii de bàyyiwuma wu ma ko fi woon mhm. ñu ne ko ah, da koo def nii mu ne ndax lan ñu ne ko ndax euh, bu gan ñëwee ji la seet mu bañ laa gis daal maanaam ah, ñu xaar mu waaw mu toog ba ñu woo la nga génn mu rek may ko sax mu yeggale ki def ki def jëf ji nag mën naa ko tudd mais jaru ko waaye daal daa commencé war sëñ bi xëcc rido bi rek yëpp daanu ñeent ñeent ko ñëpp wadd mënu ko xanaa da ngeen maa bëgg a yàlla teg ma fi ngir jaamam yi di ma gis ngeen may làq ngeen may làq waaw waaw waaw maanaam <laughs> waaw maanaam pour walla pour walla ah, dimension yi waaw waaw parce que ñële ah. ñële ñu ngi ko bëgg a wan ni noo yow kilifa nga yow yow yow yow yow nàngam nga ah, kenn euh, war la gisee noonu danga naqaree gis ku ñëw ci yow daa war a ram fekk sëriñ bi gis ne loolu naqaree gis musiba la ci moom wallaay wallaay wallaay musiba ci moom tët tët moom moo tax faati faati nit ñi ñi ñu alal ci àdduna sax te deewaguñu daa bëri. boo xam ne boo fa demee te bala nga ko gis lalu na ay fan lay. waaw ñu naan la ñu naan la sëñ bi daa dugg. ñu naan daa dugg biir néeg lu muy wut ci biir bi ci biir néeg ko fa dugal moo ko tax toog. wallaay da faati Sénégal ñoom lool rek xool da ngay ne ci koñ bi. xam nga da ngay ne ah, ci koñ bi faati. Ah, ah. yow kër jàmbur ngay ndekkee. Mm-hmm. yow boo yow boo añee añ bu neex. Mm-hmm. kër jàmbur nga añee. Mm-hmm. fa ngay naanee ataaya ak sa gaay yi yow gars yi sax léeg-léeg ñoo lay may tubay joo sol. Uh-huh. léeg-léeg nga ne waa mais copain jox ma dàll yi boog. xam nga yow nga dem ba yàlla mu ne la gan. waaw yàlla mu ne la gan. Uh-huh. waaw nga euh, sa ci wàllu alal ñëw nga gis nit nga gis benn waay non sëñ bi xam nga nag affaire bi warta yombee nii ku lay seet. Hmm, daa war a wut rendez-vous. Uh-huh. Hmm, yow yow même booy demati ci xew yi daa war a am ñoo war a àndal. xoola wallaay ndeysaan ngay ngay gën di xoggali ko nag mm-hmm. boo rombee nit ñi non non booy nuyoo daa am noo war a kii daa am noo war a waxee daa am noo war a solo yow fa nga démb xat am nga yow déjà yow ab marionnette nga rek dañ lay dan lay dañ lay wax jaaral fii wallaay wallaay ndeysaan mais gis nga nit ki da war a am hmm. bu fekkente ne mat nga ko hmm. mat nga ko da war a xam fi nga jëm hmm. ba fu la nit bëgg a xëcc jëmbalee la foo xam ne du foofu nga xam ne fii baaxul ci man fii moo baax ci man lay ndeysaan <laughs> bu fekkente ne mu ngi noonu rek kenn ku ci nekk surtout de la personnalité daal laa fi gis lay ndeysaan kenn ku ci ne sol sa dara bu mag taxaw nag toog toogaay bu yaatu taalibe yi ñëw di sukk di ram daam daam benn waay bu ma sa jógee biti réew mm-hmm. fii la nekkoon nag ñoo defandoo lépp mm-hmm. waaw defandoo lépp mm-hmm. ñu waxtaan rek fu ñu waxee waaw yàlla nee na yéen tamit ne man tey tëkki de xam naa ni moom jàmbaat la lay ndeysaan diineem xam naa ne lu koy fëkk yombul. waaw mhm. ah, mu dem biti réew dem jàng ñëw léegi déggatul wolof nee na. waaw ah, buy wax day rouler yi. Mhm. Hmm, day day day teey day civilisé. Mhm. pour moom daal na civilisation daal ca la mu jàngi woon loolu la ne. la ne moom moom léegi. ñëw gaari otoom. oto oto da ko luwe nag. ñëw ndeysaan paa bi ne ma damaa bëgg nga ànd ak moom kër diw mu nuyoo kër diw mi muy wax suñu dëkkandoo la. pour mu nuyoo foofu man ko ndax daa xamul kër diw. ñu ni waaw xam na ko mais pour ngeen ànd ma ne kon na demal boppam kër diw. Mhm. waaw waaw. waaw kenn du ànd ak moom moo doon dem foofu doon fa fooy. Mhm. na dem kër diw. Mhm. jarul protocole. déedéet looy ànd ak moom mu nekk ci ginnaaw di xoggale ko. di ah. ufub koll ak boobu rek man leen man leen man leen na demal boppam. donc <laughs> mu ne waaw waaw non non c'est vrai c'est vrai. non xam naa fa c'est ah, ma demal ah, waaw. ba mu demee nii xool ma ne ma non billaay yow jaax nga man dégg ci gis nga dafa am yoo xam ni. yéen a ciy dugal nit yéen a ciy dugal nit ba mu daanu ci kàmb. waaw kii du dara nit la comme ñun. Mhm. fii la nekkoon di foo di def lépp. Mhm. dem fee ñëwaat. léegi daa bëgg a seeti xaritam bi dëkkoon fee wala maire bi dëkkoon fee. na demal boppam kenn ko gunge. man su ma fay dem kenn du ma gunge bu fa diwdee dem kenn du ko gunge na demal boppam. waaw su benee nee nag bu ñëwee bu ko defee kenn diw y' a pas mais moom moo ñëw ne mais gis nga nit ñi faati la la daloon sëñ ba rek boo dee nag nga topp leen ah? ba dugg ci camp. ah sëñ ba nekkoon te eh, yow yow yow yow foo mën a dem ba ñëw changé. Hmm. ba fàttali xew fi ci dëkk bi. bay laaj boo demee kër diw loo koy jox. ñoom pour ñoom dañoo defe ne sax loolu la ñu sekk nit ñi. Hmm. boo seet boo seetee diw loo koy jox. waaw diw daf ma dem yëgal benn xewam boo ko seetee boo ko demee loo koy jox waaw waaw <laughs> la daloon sëñ baag taalibe yi taalibe yi gën sëñ ba gën rek di xoggali ko ndeysaan mm-hmm. Mm-hmm. taalibe yi naan non suñ sëriñ bokk ci suñ sëriñ day naaw mm-hmm. waaw waaw wallaay ndeysaan sëñ baa ngay muñ rek faat waaw saa mu femm leen ne leen baleen seen fen yi waaye déedéet sëñ baa ngay muñ rek waaw waaw taalibe taxaw di ko waxal loo xamante ne daal di koy jël sax placé ko ci ci kanamu yàlla sëriñ ba toog di seetaan dem am na fay kër ma lay ndeysaan seetal waaw bu sëñ bay muñ rek waaye daal sëñ ba baggan ne ñibbee mu mu meebuwaat ak grand boobu di ñaadam ñaadam ba dugg biir néegam waaw naka la dugg biir néegam summee ko xam nga dañoo ne woon sëñ day naaw ñun suñ ñun day naaw aras lay fanaani yow booy di fanaani aras sax sëñ bi summeeku sëñ bi summeeku pat pat pat pat pat ba sonn demul fenn sëñ bi ñàkk na tooy xeeb coonaan koy bëgg a rey mu ni mu ni bilaay sama taalibe yee mun a fen <laughs> man ko xamul lool mënul xamul lu mën ak lu mënul booba loolu laa lay wax man ko xam nga li euh, lippal bi doon wax mu nan na ta nanama mom sa bop ngay nax. wa mhm. wa yow ñang lay jay ngay ngay xoglu xam nga da ngay dem ba tu es prise au piège du mensonge. absolument di liñ lay waxal nan serigne bi day naaf sa da ngay dem ba tu tu te surprend à croire à ça. dem ba jek jek di di ne man est-ce que sax mënumaa naaw. est-ce que man mënumaa fanaani aras. wa mu ngi noonu euh, pour dire que dal nit ki dal euh, da ngay am ño xamanteni di ji lay wër. wa fexel ba ñu nekk ño xamanteni ñu ragal yalla mhm. fexel ba ñu nekk ño xamanteni sa yo na ray jàdd ñu fatali mhm. mais budul lolu loolu ko mën ti andal mu lay jaay gëm loolu loo xam ne amut yaa ngi dugal sa bopp ci kàmb. xanaa xamoo Faty xam nga man euh, taalif yi ma doon bind. Mhm. am na ay woykat yu bëri yoo xam ne yàgg nañ koo bëgg. Mhm. Euh, ma lànk leen koo jox. Mhm. am na bis ku ñëw ne ma dama laa bëgg a yóbbu ci euh, avant Omar Pène ci Thione Seck. waaw léegi ngay liggéeyee noog moom patati patata di bind di ko jox ngeen xool nu ngeen di liggéeyee. ma ne ko moom laa gën a bëgg ci woykat yi de jamono yi nga ma koy wax. mais mënumaa liggéeyandoo mënumaa doon conseil am ci wàllu woowu. Mhm. di ko bindal mun ma ndax lan man ko dama koo bëgg. Mhm. mun ma ah waaye loolu loolu a yomb ma ne ma ko bëgg jamono jooju. Mhm. toll na ci xam ne mënuma koo wax dëgg. ma mën tax ma ni gongo. waaw looloo tax te te damay bañ. lu la bind loo nga bind. waaw kay damay bañ moom may man man man ma yàqal ko. waaw ndax xam nga léeg-léeg loolu noonu day am. da bëgg nit bëgg nit li ñu naan ku sa ku sa wujj di sëlam doo set mm-hmm. euh, jigéen du xam mbonuk mbonuk doomam mm-hmm. euh, tabek jëkkëram ak baaxug wujjam mm-hmm. waaw waaw loolu nag laa daan bañ mu dal ma ca moom <laughs> ay <laughs> defe naa ne <laughs> formation ñaareelu élément bi formation lu mu waaw wàllu formation euh, professionnelle bi ñu doon wax. Ah, bi ñu doon wax démb. voilà d' accord wax moom lañ reprendre. d' accord euh, pour wax ne rek euh, syndicalisme bi. Hmm. ay syndicat la syndicat la boo xamante ne bii dañoo ñëw indi seen ngir jàppale le centre de formation professionnelle bi nga xam ne moo nekkoon donc loolu mu nekk loo xam ne lu ñu war a wasaare la lu ñu war a siiwal la pour euh, mu nekk loo xam ne day inspirer yeneen di syndicalistes pour ñu xam ne syndicalisme du loo xamante ne revendication kese donc dafa nekk loo xam ne dañu war a euh, nekk ñoo xam dañuy contribuer di participer ci loo xam dafay dafay jëmale seen structure yi kanam. am na solo euh, ñetteelu élément bi bokkoon na ca affaire masque yooyu ci biir école yi xam nga tey suba fàtte dégg naa ci débat bu ma metti mhm. xam nga déjà am na amul ak élève bu nekk waxoon nañ ne la jox ñetti masque mm-hmm. waaye waaye nit ñi tamit faati dañu nañ ñoom nañu neex ak yi boo dimbali mm-hmm. wax dëgg yàlla yow bu ñu la joxee benn masque ñetti masque lañ la waxoon da ngaa bëgg sax njaboot jàngi demoon mm-hmm. demoon jënd benn masque bu cent franc te nga dolli <laughs> vraiment parce que yi ñuy def tamit du débat daal uh-huh. nit da ngay neex a dimbali waaw da ngay neex a dimbali xam nga tey jii seen njaboot giy jàngi nga dem jënd masque. Mhm. yow déjà lii ñuy def rek lii ñuy def rek mënoon na leen cee ñàkk ba ñu fekk. Mhm. damaa defe nag souvent suñu gouvernement yi faati ñoo dugal seen bopp ci guuta mhm. waaw ñoom ñooy indi seen bopp yenn problème yi ba nit ñi aussi bëgg leen a jiiñ yenn yi. waaw parce am na loo xam ni am na loo xam ne boo ko nit mënalee boppam. jarul nga ko koy defal jarul nga ko koy defal. waaw loolu boog boo ko koy defalee na ko ni yow jéemal. fukki dërëm la. juróom euh, maanaam ñeenti dërëm euh, juróom-benn nga nii wóoru dama wuti ji ñeenti dërëm. waaw wax dëgg yàlla parce que aussi ay masque rek. Mhm. warut a nekk débat xale yi mhm. élèves yi dañ leen a war a jox masque. Mhm. mais yéen dem leen wuti masque cent francs lay jar. franchement masque moom. man dama dama gëmul sax nit war na ko jënd di ko séddale. non vraiment parce que nekk na loo xam ne aussi c'est à portée de main pour tout le monde. wax dëgg yàlla yàlla nañ ci góobu ay ay ca 33 951 euh, nag waxtaan wi fa mu tege woon mm-hmm. Euh, ci euh, kilifteef bi nga xam ne moo tumuraanke ci réew mi mhm. ba nit ñi léegi dem ba ñeme kilifa yi mhm. waaw ñi léegi dem ba ñeme kilifa yi waaw ci loolu lañ nekkoon démb euh, gis nga démb ci couvre-feu bi faati mhm. avant ñu koo joxe man man ay reetaan daf maa jàpp mais man maa gis ay nit ñoo xam ne ñoom ñu ngi génn ci mbedd yi ne tey couvre-feu du am waaw tey couvre-feu du am waaw ba nit ñoo xam ne ñoo war a voyager de wala déplacé wu jël oto ñoom ba ay vingt une heure mooy ñu ngi ci ñu ngi ci tali bi. Mhm. chauffeur si tamit ñu ngi daw. Mhm. mais loolu part da euh, dafa amul sens. parce que dafa lay won ne dafa leerul ci seen bopp. dañoo hmm. jàppoon ne couvre-feu bi si bi la jeex. ñu ne hmm. leen tey ci la bokk ba minuit. donc hmm. bu ñu jàppee ne tey ci la bokk euh, bu ñu xamul ne tey ci la bokk. mais dañuy génn jàpp ne couvre ba jeex na. kenn ku ci ne mën nga dem vaquer à tes démb boo xoolee Ndakaaru en tout ñu ci biti heure bi joté ñu ci biti ñu ci biti dem jënd réer def comme si de rien n'était mais buñu démé ba nga xamante ne bi ministre de l'intérieur génn na wax né tay ji ba minuit ci ci couvre-feu bi la bok mm-hmm. après c'est la nit ñu bari di doko di ñibi ñibbi seen kër donc loolu mo lay won ne communication gouvernement bi dal dafa war a nekk loo xam ne lu précis lu leer mm-hmm. et puis couvre-feu bi li ma jàpp mooy balaa jeex deux jours au moins wala un jour avant muy jeex dañoo wax mhm. wax ni ah, dañ koy prolonger mhm. day continuer du am rupture wala dañ koy mhm. arrêter au moins nit ñi bu jour bi joté ñu xam à quoi s'en tenir mais bu fekkente ne da ngay xaar ba jour ba jot nit ñi di la déglu di xam duñu xam est-ce que euh couvre-feu bi day continuer wala da fay jeex vraiment ñu nekk ci situation yo xamné ne dafa xaw a doy waar. y problème nekk na loo xam ne daal problème la daal. problème la te jàpp naa ne gouvernement bi war nañu weesu foofu daal. asalaamaaleykum waaw kooku dem na euh, dina laaj ci ñu xool kii ba xam allo salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa leen di ziar. Eh, bu wér waay. mbaa waaw Alphonse maa ngi lay nuyu. naka liggéey bi. ñu ngi sant bu baax baax. waaw di rafetlu émission bi rek. macha allah waaw di nuyu gars yi bu baax a baax. macha allah càmm développement max market. ak oustaz. Mhm. ak monsieur Koni. Mhm. Euh, Gassam aussi ñu koy ñaanal yàlla yàlla dafa ko boppam quoi ak Serigne Mbacke Ndiaye aussi ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dafa ko jàmm. Mhm. di wax rek nag ñi tey ñëwaat ngeen fi am solo mais li ma bëgg a njëkk a xam mooy waa kii euh, sàmm sa jikkool xaw ñoom ñooy def pétition ah. waaw. waaw mais pétition bi noonu laay pour am ci. waaw pétition bi xanaa après ñu jéem a lijjanti rek noo ci amee. comme ah, da nga bëgg a signé. non moom koy damay signé signé yu bëri sax. signé ñu bëri. <laughs> waaw ah, macha allah yow moom daal li nga ko jot incha allah. loolu moom sama yitte lay doon. bu wax dara jërëjëf allah sama beneen mbir mi aussi. Mm-hmm. bon damay dégg temps yi affaire vaccin yi gars yi di wax ni quoi. Mm-hmm. bon vaccin yi moom Fatima. waaw su fekkee OMS moom validé na ko. Mm-hmm. man vraiment gisuma ci problème quoi. Mhm. parce que koo xam ne loolu la jàng. Mhm. loolu la xam. Mhm. ah bu ci waxee ne lii baax na rek. vraiment warul am problème quoi. nit ñi nag ñi nga xam ne ñu ngi ciy commentaire naan état état état. nañu bàyyi état. parce que lii du nekkatu léegi mbiru état. mais léegi mbiru ñëpp la. parce que tey man tey suma affaire bi dalee tey. même suma état jëlee en charge. man maay sonn. maay sonn mhm. maay sonnal sama njaboot mhm. su ma ci dee aussi sama njaboot mooy ñàkk mhm. donc buñ ko jël rek wéer ko état su nekk na nga jël xam nekk lii sa mbiru bopp la nga géral ko sa bopp di takk masque di raxasu ak saabu li la gars digal daal nga def ko parce que man mënuma ko am parce que ñoom ñoo ko jàng daal ñoom ñoo demoon jàng médecine xam xam lan moo nekk ci feebar bi xam ci lépp daal kon bokkul ak ko xam ne moom xamu ko Mhm. man du ma déglu koo xam ne ne xamu ko. Mhm. man ki ko dégg ki ko jàng xam ko mhm. man kooku laay déglu. te kooku li ma ci sant rek loolu laa ciy def. moom ngay def moom laay def quoi. parce que état aussi musique bu mu ci mënta jël aussi. tëbul tëb rek jël ko. ñooñu ko jàngi. ñoo ne ko affecté fii la toll. parce que Fatim naa la xamal gars yi dañoo commencé am problème fu ñu def gars yi de. amatuñu lal ju doy. ci affaire yi mu ngi yokk yokk boo xam ne saa yi nañu ñaan yàlla yàlla yemale ko fi mhm. sinon su continuer nii rek bu baax ci mhm. askan surtout mhm. askan bi ñoo ci sonn vraiment vaccin yi moom su fekkee ne moom euh, OMS validé ko di ñëwee moom rek nag gars yi jëngu ñu vacciné wu parce que vaccin yàgg na am dëkk bi dañuy jëngu de ah ok dañoo bañ <laughs> dana war de moom mais dañoo bañ. loolu yëngu dafa xanaa neexatul nag. waaw mais dañoo bañ mais Fatou da xool au temps. Hmm. au daan jékki-jékki dina vacciné gars yi génn di rang ñu leen di hmm. vacciné. Hmm. amul woon benn problème. daan vacciné wu te aussi bu amee ci dëkk aussi vaccin moo ko mën a jëlee. léegi ñi nga xam ne aussi jàng nañ ko OMS aussi nee na kii validé na ko. Ah, su fekkee validé nañ ko mais bu ñëwee kay nañu vacciné wu amul problème. amul problème quoi. Alphonse mooy njëkk waaw. Alphonse maa ngi lay ziar góor waay. bu ma yaay njëkk vacciné wu lool. <laughs> non président yow moom da ngay vacciné wu en public. <laughs> yow boo a vacciné wu. non man moom hmm. man moom yàgg naa jël ay volontaire quoi nekk volontaire man yàgg naa loolu hmm. yàgg naa ci loolu quoi. Hmm. man bu ñëwee ma amul benn fois mën naa am vacciné public ñëpp. di mu gis. yow kay président yaa ngi soog a bu fekkee ne nekk premier cadavre lay doon. Hmm. amul problème maa ma nekk premier cadavre quoi amul benn problème man ragaluma ay affaire yu dee. parce que man euh, yàgg naa frôlé dee quoi xam nga. naa frôlé dee comme que ay dee après man loolu du sama problème quoi. xam nga donc man bu ñëwee man amul problème man mun naa vacciné wu tout yëpp di mu gis. <laughs> macha yàlla xam na loolu ah. yàlla xam na loolu. xam nga. Hmm. donc bu ñu ko téye di ko jàppale naan vaccin bi lii ak nangam nangam nañu déglu rek ñi nga xam ñoo ko jàngi. Hmm. ndax affaire bi fu mu toll nii dafa dafa grave Fatima. non boo doon dem di Dakar ngay hmm. romb institut Pasteur. parce que itam day daw Fatima. danga fay gis ñoo taxaw fi naan ay bi amul ak ay feebar bi nangam nangam mm-hmm. ne gis mm-hmm. vraiment man daf may jaaxal quoi mm-hmm. waaw daf may jaaxal daal jërëjëf président waaw ah. <laughs> de xam naa ni boobu boo ñëw day fekk ma tukki sax waaw waaw xam naa ni waaye di Pape kon loo pikiiru ni

boo fa demee mën ngaa jotaat lépp loo xam ne def na fay jaar waaw ak yor yoru kajoor moom lëkkaloo boo xam ne am na njëriñ loolu waaye mi ngi noonu Mouhamed Diop mi ngi lay ziar baax a yàlla fayal na yàlla barkeel amin allo salaamaaleykum salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah waaye nuyu naa la fayal na waay yëpp su Fatima waaw nuyu la ziar fay bu baax a baax boo gisee may jaamtu ni dafa am fu mu war a daw moo tax ah dafa am foo war a daw waaw loolu man ni li nga wax sa commencé nga ko wax problème communication mm. les gens ont écrit hier à minuit mm-hmm. aujourd'hui à minuit mm-hmm. mm-hmm. gouvernement le ministre de micro. le matin à 8 h le 9h, le continuer jusqu'à minuit. après hein, le chef de l'État pardonne son dañ euh, euh, continuer euh, étendre sur l'ensemble du territoire. le Sénégal mais pour c'est quoi donc la bëgg indi problème gouverneur yi rek ñun loo xam gën a arrêté. mais mënu la le ministre de l'Intérieur yow mënuñu jiw ñun. sur euh, sur proposition du chef de l'État. étendre naa ko dëkk bi chef de mbi étendre naa ko ci l'ensemble du territoire. ci affaire bi ñun ñii ñun ñii démb la jeex. Mhm. tey dafay continuer mhm. mais ñëpp daw xool démb dama tiit. waaw ay nouveaux moyens que vrai. bi bari na mhm. a ñu ngi dëkk bi ñu ngi dimbal Malika. moom kay di dox si heure couvre-feu rek ngay gis. c'est un plus alkaw manque de communication mm-hmm. du gouvernement. a à fait waaw loolu mu tax nit ñi il faut ñu xam dëgg wax ko. Mm-hmm. am na benn ultime waxtaan lu mu daalal dafa neex trop. mu ni Mouhamed. kuy parparloo bokk la si man. Mm-hmm. kuy wax dëgg nag yaa si man. xam nga doo doon parparloo tey ah euh, fekkoon tey waxu affaire communication dañu ne Fatima APR la. boo ko yéen wax man loolu wax loolu lépp wax. waaw li mu doon dina sant. am na solo ñu ngi koy jaajëfal bu uh, baax a baax Idrissa Sankharé. Hmm? am na solo waaw mu ngoog. Uh, li muy ne am na uh, solo. nañ ci bàyyi xel bu baax a baax communication moom Fatou. Hmm. ci la mbir di defaroo ci la mbir di yàqoo. Hmm. léegi nag téléphone bi mi ngi sonné. waaye dese na ma deux minutes ma dem service commercial ah. xaw ma nu ma koy lijjantee. xanaa ma jël ko rek waaw xaaral ma jël ko rek allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam Baye Serigne Mbacke. waaw ñu ngi ziar. ñu ngi ziar bu wér la. waaw soxna Fatima. waaw maa ngi si jàmm. ah maa ngi nuyu sama président bi nag. macha allah. président Alphonse. président Alphonse moom ndigal bi mu joxe moom. am na solo ñun ñëpp nañ nekk ku wax ci parti bi ku nekk na nga nekk nag. macha allah. maa ngi deew kii waaw sëñ Mbacke. ñëw ci Pape yooyu ah, eh, baax na baax na. naa kay ñëw na moom day kii rek ñu soob rek mais ñëw na bu yàgg. naa leen bàyyi ba ngeen vacciné wu rek ba pare may soog a bokk. <laughs> waaw xam nga Pape. Ah. ndax mi jógee ko fi. ndeysaan. ndax dañ koy jëmee yow ci ñaari dëkk. Mm-hmm. Sénégal nekk quatorze régions. Mm-hmm. kon quatorze régions yi kenn tudd leen. jërëjëf mm-hmm. te mbas mi tey jii am na ñu xëyee fii jëm Tamba. dugg sept place ak mini car. am ñu jógee Dakar am ñu jógee Kaolack di mm-hmm. nga lañ jógee maanaam mbas bi bëccëg lay dox léegi mm-hmm. ndax léegi nit ñi doxatuñu guddi mm-hmm. mais six heures de matin ba vingt une heure parce que nit ñi dañuy dox ñaata département moo déplacement moo am Touba Dakar bëri na Mbour Dakar Tivaouane Dakar mais boo gisee dëkk yi wër Thiès sax mbas mi dafay dafay dafay tasaatoo nga def ay Kaffrine Koungheul dëkk yëpp mbas mi tasaatoo na fa kon solution du euh, tëj Thiès ak ak Dakar ndax ñoom war nañu xalaat am xam-xam bu leer ni bi mbas mi jeexee senegal yi voyagé ñëpp deux mois yooyu seen population mi ci gaaru teer yi kon mën nañoo xam départ soo bu nekk la fay ñu mhm. ñu xalaat ko tekkul def seen calcul avant ñuy arrêté mhm. diggante Dakar ak Thiès ni mi su ne mi ngi Bambey mi ngi xombal mi ngi sëpp de tasaado réew mi mhm. tasaado googu nag benn gàllaaj doon nga ne tubaab bi moom moom moom laa mooy takk masque ku takk masque mu tindi bi ci ci jëmu jëkkaam sax seen transport bi ñu koy ubbi dañ ne koo xam ne dugg nga ci auto transport fexeel mhm. ma bul wax ba kere nga yaaj mhm. ba tax na moom ñoo ñoo dañ leen a yar wax dëgg yàlla te wute na ñun mhm. kon ak it foofu tam daa am loo ak jëkkër ak règlement xam nga la ma bëggoon a laaj waaw euh, ca njëlbeenu feebar waxoon nañ ci garage yi ku fay ñëw ci léegi di nga di nga di nga takk masque balaa ngaa dugg ci oto di nga raxasu di nga laal gel dinañu bind sa tur loolu loolu ba ba pas ñu wàccee ba koriment bañ ci loxoom la loolu dañ ci jaaras yëpp loolu amul wallaay wallaay ndeysaan jërëjëf <laughs> jërëjëf ma ne xam nga tey maire yi sax gis nga góorgóorlu yi ñu leen def ku ci ne li nga yor dañ ko bëgg a dundee fi mu ne waaw ñëpp a tiit waaw su ne tabax yi gaa yor tabax yi sax wàññi nañ ko ndax def nañu mbas mi da at boobu bëgg a at bi tukkeegul yàlla moom àddina hmm. wallaay moo ko moom moom mbas mi andi fi mbas mi andi ñu fi hmm. bu ko neexee la fi jëlee mbas mi hmm. ñun tam ñu fi nekk ñëpp kuy voyagé ku nekk boo dem doo tàggu say mbokk mhm. yàlla bi la fi indee mooy fi jëlee mhm. mbas mi nag nañ ko jéem a respecté rawatina fii Thiès nañ takk ay masque ñi mhm. koy continuer tam nañ nekk ñoo xam ni ku ñu jàpp tegu ci yoon ndax bi ñu dafa laa suñu ma jàppoon fay la ma fa ne sama calculé message bi dina jàll waaye nag am na ci loo xam tam ki dugg na sàng li mu wax dëgg la de gis nga Sénégal pour mu am kaaraange il faut moom loi ak décret ak règlement yoo xam ne ñi ci kanam ñoo koy jëkk respecté tout à fait surtout ñoo ñoo ñoo dawal saxaar mm-hmm. ki dawal avion bu mm-hmm. waaw réew mi tam ñu koy daal bu fekkee comme li am démb nga xam ni ba vingt ba vingt heures waa Dakar ñëpp a ngi jaay ak waa Thiès bi. Mm-hmm. defe nañu couvre jeex na. waaw léegi ñu jëm Guédiawaye ak ñu jógeen fii Thiès ak jëm Xombal. waaw nan la ñuy def. mais eh, état bi dundee noonu état war na am renseignement. askanam. ba nga xam ni ñëpp dañu xam ne xew. avant quatre heures war nañoo xam ni. affaire bi dafay continuer Sénégal xam ko. Mhm. ñu dëkk Thiès doon dem Dakar xam ni vingt et une heures doo mën a génn. maanaam affaire bi daal.

te te liñ leen di wax mooy dëgg. am na solo euh, kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax balaa pëccoxoo di am ndax réew moom bu amee rek pëccoxoo dafay daal di am te nag gars yi ni doxalee daal daa mel daal moom nañ ñu daal. Mm-hmm. waaw waaw dugg leen dugg leen heure sàngam. Euh, sinon ma def nangam sàngam waaw ni ñuy doxalee moom xam naa ni moom teguñu ko fenn euh, xam nga fàttali tax ma laaj Serigne Mbacke Ndiaye laaj boobu. Mm-hmm. ñun dañoo mën a jëlee. ba feebar bi tàmbali ñu ne garage léegi ku fay duggati. waaw dañ lay bind. xamoon naa ne xamoon naa xamoon naa ne kay ba su feesee rek ñu teg ko. waaw waaw loolu dafa am lu muy laaj ci ci <laughs> investissement bu ndaw. lay ndeysaan fi mu gis nga suñu gouvernement yi. Mhm. ñu ñu ndaw ndawaan yi ñu fal ci. Mhm. Euh, fu ñu mënta ba ci suñu maire yi fu ñu fu ñu mënta amee xaalis. Mhm. duñ fa dugal xaalis. waaw kooku ñuy teg foofu sax muy bind nga xam ne dañ koo war a fay. waaw ah, dañ koo war a fay mu nekk koo xam naa nga xool fu ñu fa mën a wutul ay taxe ak impôt. Mhm. duñ ca jëm dara man bu ñuy bind laa xam ni garage boo xam ne am na fukki bunt. wet gu nekk la nit di jaare mhm. ñu ni deete waaye borom oto bi yàkkamtiw lu dul lii fees ba mu ba mu ba mu dem da fa nekk naan ko deful nangam ak sàngam. Mhm. ah ñun duñ jàng ci dara. dara duñ ko jàng buñ doon jàng jàng nañ te boto la joola. c'est dommage. walaay ñu dem service commercial ñëwaat. incha fanweeri fan ak benn ci weeru janvier de TNT bi dikk naa xéewal de dama ne la la TNT à portée de tous TNT bi kay léegi nag ñëpp mën nañ caa jotee maa la ko wax te koppar gi yëpp ci junni ak ñetti téeméer dong la di six mille cinq cent eeway eh samba weer wu dee wu ne fii ba atu yàlla nag laa la wax te di nga am benn ko HD am nga benn antenne ak fukki weer ak ñaar abonnement ak bouquet maana eeway eh samba dama ne la ak installation ba ba ca gratuit mu waay maa la ko wax TNT gi daal lii xéwal la TNT bu bees bii six mille cinq cent rek weer wu dama ne mbir ba le 31 janvier la lii ma leen limal yëpp ci wu ne ci atub lumbu eeway la daf leen la voix du

waaw ñu ngi si jàmm ñu ngi si jàmm alhamdulilah macha allah ñu ngi bu baax alhamdulilah. Ah, yàlla na sant yàgg. waaw Maguette benn laa la bëggoon laaj. waaw sa waaj maa yaa ngi koy gis léegi. dinaa ko gis nag de. ah ba léegi nii kon. waaw dinaa ko rek. séesam ba kay ba léegi nii sées bi ndax naa ko fëggaat ko tey. dee ko ab la rek nit ñi di ci toog moo gën daal. <laughs> mu ngi léegi kay xanaa léegi kay su ma ko bëggee day gis léegi mm, mm. dama wàccee damay nga jaar rek waaw nga jaar fa rek waaw su ma jaaree daal damay taxaw si buntu bi ko mu génn tallal ma loxo rek ma séen ko rek lay nar naa métti yéen daal li ma na waar. doy na waar ah, non non rek yow kay léegi mu jeex incha allah bu la wax dara. non non mais noonu ah, rek. génn ni pëccat daw. waaw waaw non bàyyi bàyyi ko rek bàyyi ko mois deux mois rek. <laughs> nee na yàlla baax na yàlla baax na. mais nu ñu nuyu ñëpp nag. vraiment di nuyu Yankou Tall. Uh-huh. di nuyu président Alphonse. Uh-huh. di nuyu tamit sunu ministre transport bu bees bi. Uh-huh. macha allah waaw di nuyu ñëpp. ñu membre bees bi. <laughs> <laughs> bon di nuyu ñëpp nag bon fàttewuñu kenn yam jam développement wu ñëpp. vraiment di ñëwaat ci feebar bi rek. Mhm. bon kon niñ koy waxee ñu ko gars yëpp waxee. Mhm. bon xam nga feebar bi bu nekkee cent pour cent la. Mhm. bon soixante pour cent yi xëy na feebar am na. mais quarante pour cent yëpp politique la ak loo xam ni bon du du dëgg. waaw parce que lu ci lëmatu soo xam ni dañ koy nëbb def. lu bëri feebar bi. xam nga te nit ñi foog ñu comprendre te nit ñi suñu xamul rek xam nga duñu mën a avancer duñu mën a dem. dañuy ragal. parce feebar boo première vague bi njëkkoon a am. Mhm. peut-être nit ñi gënoon na jox a bi gëdd. que que que vague bii nii. Mhm. parce que boobu nit ñi xam dañ koo ragaloon. Mhm. nit ñi wan nit ñi dee nit parce que feebar bu bees la. mais fi nit ñi dafa mel ni ragalatuñ ci feebar bi. a ngay wax sax des fois gis ku leen ni feebar bi moom day ñëw pour rey ñenn ñi bàyyi fi ñenn ñi mm-hmm. bon nañ tekki nag yi dem dugg liggéey suñu liggéey ñu rey ñu muy rey mm-hmm. ñu mu rey ñu xam ne deewuñu parce mm-hmm. xamatuñ fi ñuy teg seen tànk quoi voilà xamatuñ daal parce que dafa bëri bu fiir waxee lii bari na ba ci xamul waaw docteur yi si seen bopp sax da ngay gis docteur génn wax lii génn wax ciy wax lu lu bokk nag lu koy wax. ba pare nag président uh-huh, président bëgg nag ñëpp ne nañu ànd def piqûre bi rek. voilà tey te piqûre bi nag du noonu nag. Uh-huh. piqûre bi nag foog ñu tamit ñu leeral dafa ko tamit comme comme la wax sànq docteur yi. kii day ñëw ni la piqûre bi piqûre bi léeg-léeg keneen génn ñu la piqûre bi doxul. te ñoom ñi ñoom ñi nekk ay dëkk jàng ko. Uh-huh. xam nga bu ñu demee ba déggoon seen biir dañuy jaxase askan wi. xam na mm-hmm, mm-hmm, donc bu ñuy communiquer communication dafa xoolal lépp loo gis ci àdduna mm-hmm, communication la. teg ci table bi wax. guerre mondiale lu muy métti métti métti communication la loolu la jeexee. bu ñuy communiquer même bi euh, euh, affaire bi mooy affaire bu ñu tëj nit ñi nii. loolu boo koy def. waaw boo koy def. ku wut ak yooyu. mais da koy annoncé. mu leer xam nga dañu ñëwoon la. waaw dañ dem ba dawal huit jours. président lu mu kàtt kàtt war naa a ba mu defee ñeenti fan. Hmm. leeral nit ñi ni ah man kat dañ ko yokkaat. Hmm. bu defee nit ñi mën a pré yooyu yëpp nit ñi dañ koy préparé. mais doo xëy xëy suba rek ni tëll lañ li man man premier jour man premier couvre-feu bi. Hmm. man sama jabar moom ko wax. xoolal loolu xoolal loolu daf maa woo li ma yow tey ba doo guddee. man ko ah lu xew ba nga ma ba nga laaj ma loolu ma parce que couvre-feu dafa am. man ko ah moom waaw man ko ah loolu yaa ma ko yóbbu ma ko. parce communication yi moo def. moo des feebar mhm. bi ñu siy nëbb dafa bëri feebar bi gaa am na mhm. am na ma mais li ñu siy nëbb dafa bëri ñu mhm. xaw ma lan moo tax lan moo nekk ci biir feebar bi dañ koy nëbb xaw ma dañ si wut alal xaw ma dafa am lu ñu bëgg a changé xaw ma daal mais daal nëbb gi bëri na foog ñu di leeral nit ñi parce que nit ñi dañoo war a xam dañoo war a comprendre parce tamit loo xamul mënoo koo daw foog ñu xam ko pour mën koo moytu carrément waaw vraiment feebar bi war nañoo gën booloo xeex ko mu jot ci parce que tamit sonal na nit ñi daal sonal na nit ñi mu ngi yàq liggéey jàmbur mm-hmm. mu ngi sonal nit ñi daal doy na waar quoi mm-hmm. vraiment maa ngi leen di nuyu gërëm a baax am na solo waaw dina jaar bu baax mm-hmm. a nekk de procureur procureur nga bëgg a nekk waaw man moom procureur moom <laughs> parti moom wala mënu ah. maa nekk ma ko du ma am jàmm ah, <laughs> am ñoo bëgg a jàpp foofu non non xoolal dara xoolal xoolal jarul tax ñu may fay. Ah. ñu bëggee tax man maay fay. <laughs> naroo jàmm yow mii naroo jàmm de. maa nekk procureur rek pour a am lu ma def. nee na waar nee <laughs> <laughs> ah, eh, daf may fàttali la la daloon waaja fàtti. Mhm. xam naa moo moo na moo dal seen waaji. Mhm. waaji daa dem seen bi ne am na benn tur boo xam ne buñ la ko joxee koo jëflanteel rek daal yaa koy mën daal. Mhm. waaw waaw waaw benn tur daal ba mu soxla ci sëñ bi daal boo xam ne moom daal lu mu bëgg daal day am daal mhm. waaw ñëw sëñ bi ay yoon yoon nag mhm. sëñ bi naan ko demal tey suba ngoon tey suba ngoon ba benn bis nag ni mu ñëwee xam naa ñàngal ne non tey moom dinaa jot ci tur bi pour ma mën koo wérd sëñ bi na ko waaw léegi toogal xaar moom ñu sëñ bay jógee sëggaale for tuuti melentaan benn melentaan xaw a jóg rek mel ni lu ko sànn ci ci doq waa ji waaw daal di dem sëñ buntu néegam làqu ci rido bi di xool waaj mhm. naka la melentaan bi màtt waa ji nag kiij rek mhm. waa ji daal dugal na yor na loxoom ci doq li yëre yëre ba jàpp melentaan bi mhm. teg ci suuf yemul ci rey ko de waaye da ko bi jeex ba pare nag di màttatu nag toog waaw ah, sëñ bi génn ne ko saa waaye jógal dem <laughs> ne tur bii nga may laaj ku mënta muñal melentaan ah. doo muñal nit mënoo ko muñ waaw ah. mais sa di laaj procureur te naan te naan bëgguma ngeen fay ma dara. <laughs> <laughs> sa waa ji de kii de lu mu nar laa xamul. Hmm, yéeme na moom. moom daal bu dee président Alphonse lay njëkk tëj daal baax na. wallaay dëkk bi yéeme rek <laughs> dëkk ci boppam uh, sëñ bi moo yéeme. waaw ah, bu ngoog. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi ziar Adja Khoudia. soxna Khoudia waaw koy téye. Fatima. def ndeysaan. yaa ngi yaa ngi si jàmm. Ah, kooku. waaj Pape. Fatima seetlu woo loolu. baat bi naa waaw dafa mel ne xaw naa changé nag. ah man ah, na wax waaye man hmm? ah, a a ba pare ah, dafa de ñeme ma koo wax. ah na daal ma ngi noonu. yow daal soxna ko jeex man nga ñeme koo wax. am lu waxaat. Hmm? yéeme la de. waaw maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax a baax. di nuyu ak foofu allah. di nuyu suñu waaju baax jooju. Uh-huh. maa koy nuyu bëree bëri. macha allah émission yi amati na solo. ndeysaan jërëjëf. ñaan yàlla uh-huh. yàlla jële ah, rek lañ defee. Uh-huh. Mm-hmm. allah am na solo am na solo. <laughs> <laughs> jërëjëf jërëjëf soxna ko jeex. ndeysaan. déggal nee na sànn sama waajo xeer ah soxna xujja sa waay laa de waajo de nee nañ baat bi dafa gën a leer léegi moom boo mën a lu ko gën a leeral noonu waaw ku fi jaar ak ku fi jaar ba baat bi gën a leer kii la xam nga damay xëy di naan café ah da ngay naan café café laa changé rek mais daawoo naan café waaw waaw café gi laa changé daawoo naan café kon déedéet daan naa ko daan mais café laa changé ah da nga changé café gi quoi dama changé café ah kon café gi am na solo dama changé café loolu café gi kon am na solo macha allah allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu maa ngi leen di ziar. maa ngi leen di ziar baax wax. waaw sant nañu yàlla alhamdulilah. macha allah yàlla sant yàgg. di leen nuyu di nuyu ñëpp rek. macha allah di leen ziar bu baax a baax a baax. macha allah di ziar mboolem eh, auditeurs yi ak auditrices yi. Hmm. di tàmbalee ci soxna xujje moomu. di ko ziar macha allah. di ziar eh, Max Maguette. Hmm. sëñ Mbacke hmm. Ndiaye. ak ñoom Alphonse. sëñ Gassama ak ñëpp rek. moo rek mboolem ñi nga xam ne daal dañoo safoo jataay bi di ko déglu. di ci indi seen i xalaat. Mm-hmm. te xalaat yëpp rafet. Mm-hmm. ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu di leen ziar. Mm-hmm. di wax kàddu guñ ci wax rek. te mu jub yàlla na ko yàlla nangu. te bind ko sunu téere jëf. lu ci dëngit te matadik doomu aadama waral koy yàlla na nu ko yàlla jéggal te faral nu ko suppil nu ko aw yiw ñu ngi leen di bu baax a baax waaw man day xam naa ni eh, jamono bi fi àgg nii mm. nit ñi dafa mel ni xuma fas yu rëcc xam nga fas yu mam mm-hmm. mm-hmm. am na ku baax mm-hmm. da daan wax ni nit ñi de ay fas yu mam lañ kor kor téyewu leen yaakaar naa sëñ Mor Ndiaye daa bàyyi moo daan wax loolu radiyallaahu anhu nit ñi dañoo mel ni ñum ay fas yu mam waaye kor kor téyewu leen téyewu parce que dañoo àgg ci jamono boo xam ne daal yow da ngay xool maanaam njiit yi njiit yi ñi nga xam ne ñoo jiite sunu réew man damay mujj sax bàyyi sénégalais yi waaye di dal ci seen kaw. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga ñu bari naan sénégalais yi dangay dégg sénégalais yi dañoo indiscipliné. waaw waaw dañoo yareediku mm-hmm. dañoo nàngam fonk ñu nàngam fonk mais bu fekkee ñi nee nañ wax nañ njëkkee ci ñi ñu jiite. fa dëgg yàlla ñi ñu jiite. yar bi ñu bi ñu bëgg sénégalais yi dund ko. wallahi al azim. allahumma ñoom dunduñu ko. dunduñu ko. amuñu sax comportement boobu. Euh, li ma gën a yéem nag. Hmm. Hmm. mooy yow nan ngay nekkee njiitum réew. Hmm. yàlla dogal nga ni état d'urgence wala couvre-feu fukki fan ak ñaar. mu dem ba couvre-feu bi jeex. Ah man ma jàpp. dafa am lu ñuy tuddee xitaabu tarxib boo xam ni kilifa ko war a def maanaam njiitum réew mi wala njiitu dëkk. léegi ñu di ko xaar foofu pour mu indi benn discours. maanaam li mu woon nit ñi. nañ xam ba xam ndax li mu woon daa yokk wala daa wàññi moom bi loolu mooy xam-xam. waaw mooy yoon. solution laa doon indi mm-hmm. wut naa fukki fan ak ñaar dee leen tëdd nangam. Mm-hmm. fukki fan yaa ak ñaar jeex na. est-ce que wóorul nga xisaab. Mm-hmm. nga réglé. woo wax ak nit ñi ni leen ah li ma leen tëjee woon de. wax fa dëgg yàlla gis nañ ci résultat. maa ngi leen ci sant maa ngi leen di gërëm ci ànd gi man ci xeex mbas. mooy yoon. وإلا لين ينتجي وان كات وفو دجال جسين كبير نجي أخيطا نيجلي نيان نجين جنا فاقارو تبور غورلو وات نخ خامني فيبر بجي خوف وات جيت بو دي سنغالي يب حما كو جام خارتا لا پريزنان دولا ربيبليك وات سوح نام لك فتك سوح نام مونة كونة بيك مين سين بي لولو من دمائي توق مني لي موي لانتي عدونا من خلات مباح man jànguma communication parce que mm-hmm. kenn ku ne ak sa xam-xam mm-hmm. man sama xam-xam communication mm-hmm. sariatul islamiyya la waaye nag sariatul islamiyya mooy décoder communication yi mais moom ba mu fi toogee di wax wax dëgg yàlla xanaa mënoon naa jàppale borom këram ah man de sama boroom kër bi xam naa nangam ak nangam lim leen di teg gis na waaye nag defu ko sax ngir boppam bëgg seen jàmm-jàmm mu ne fa di wax ay waxi fondation ñu naan ko da koy nii nag loolu mooy la ci àdduna. na mm-hmm. ba pare nga bëgg ni sénégalais yi. yàpp parce que tënku leen ci lii mais dafa am loo xam man neexul ba neexul daal. Mm-hmm. Mm-hmm. sénégalais yi daal wax fa dëgg yàlla ñu ngi leen di toj. walaay kenn xamul kenn maximum gi wax na ko. réew mi. genn góor nee na ma. bu ko dijjatee ñëpp tëdd. waaye kenn nelawul. nga waxal wolof yooyu. <laughs> bu guddi jotee. ñëpp tëdd ñëpp tëdd. waaye nag kenn nelawul de maanaam mooy nit ñi dañoo àgg foo xam ni mhm. jamono moo leen yee mhm. ba dafa amatul mhm. lu nit def rek am na lu tax mais bi moom waroon naa génn wala mu am ndawam lu mu yabal wala médecin démb médecin moo waroon a wax docteur yi ne fii. Mhm. mais lan moo tax mënuñoo génn. wallaahi wallaahi toog ci seen hôpital yi moo jaaxal ñëpp de. di jël loolu président ay mesures yoo xam ne xamuñu ban contexte moo xam moo xew Sénégal. wallaahi toog fañ toog tënk ci seen i clim. seen i kat kat te ñoom nanguwuñoo feeñ ci télé bi wax ak nit ñi. Mhm. jaaduwul de. mais sëñ bi jaaduwul nan waxante dëgg. Mhm. mais kon su yàggee. ñoom benn arme ñi ngi ñuy wan ni benn armo lañ am buy xeex mbas mi. Mhm. muy gendarmerie ak police. Mhm. ñoom loolu fii ne gëmloo gëmloo nañu ko. Mhm. benn arme lañ am mooy xeex mbas mi muy gendarmerie ak police. islam daal man ci ci gis-gisu islam. islam daal dafa am lu muy tuddee al xaqul musaawaat. mooy àq yi dafa war a tolloo. àq yi daa war a tolloo. nit kiy digle. dafa war li muy digle mu góorgóorlu na ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla di waareloo tëbul tëb ni ko xaañal ca kaw daf ni ko njëkkeel ci say bokk wa asi asirataka al aqrabin sa mbokk yi njëkkeel ci ñoom boo fi bàyyee sa mbokk yi jëm fële ñu ni la ana say mbokk mais loolu xam-xam la yonent bi njëkke ci ay mbokkam ba ak dal. na ay mbokkam lu mat ñaari at nekk ci ay mbokkam rek lay woo. di làqatu. ba matee ñetti at ñeenti at yàlla nag ñi ko léegi xaañal ca kaw. wane ko defee wane ne yow lii nga doon woote ci say mbokk nga ko njëkkee. te su bonoon doo ko fa njëkkee. noonu la njiit njiit di doxee. waaye nag maa la xef sunu njiit yi léegi doo xam sax léegi ñoom. Euh, dañoo dañoo dañoo. ñoo dañoo dañoo jiite nit ñi ngir yàlla wala dañoo ñëw. Mm-hmm. maanaam daal sacrifier nit ñi. Mm-hmm. Mm-hmm. man nag sama gis-gis ku ma ko laaj. dama naan njiiti réew yi. dañoo ñëw ngir sacrifier peuple yi ngir seenu dund ñoom. donc loolu moo fi am. dañoo ñëw sacrifier seeni peuple. lu leen tubaab bi teg nag neex na leen. pour seeni peuple dee. lu leen tubaab bi rek. convention bu ñu signé ñu fi indi lu luy na seen peuple nangam na seen peuple lii ñoom d' accord nañu préparé nañ jaay seen peuple loolu nag mooy gàllankoor bi nga xam ne moom la ñuy dund moo waral ma ni nit ñi dañoo dem ba àgg foo xam léegi sax dañoo dem ba amatuñ fuñ jëm moo tax islam fi muy rappelé mooy nit ñi nañ dellu ci yàlla jeex na parce que boo toogee di def ay calcul ay lii ay lii feebar bi lii nangam ñii ko fi indi créé Bill bi da dem ba dootoo xalaatati sax am na buur bu bind àdduna bi. taw ak soxla Fatima war nañoo dem ba caag nag ñu xalaat nag ni wax fa dëgg yàlla àdduna bii nag mhm. dafa am ku am kàttan mhm. yor pexe mm-hmm. di def lu ko neex mm-hmm. kenn mënulu ko dara kenn di ko dicté mm-hmm. kenn du xëccoog nguuram gi lu am da koo soog nga xaw a dellu foofu sax waaye jël lépp jiñ ko koosi jiñ ko nangam jiñ ko nangam da ngay est-ce que boo kat bëri bi julli sax jëti nga xalaat ci sa julli gi ndax korona wallaahi waaye paa bi mu wax nga ko lan moo tax émission yii di am ci télé yi ñàkk mm-hmm. fayda yi mm-hmm. mais mënuñu koo soppi bu fekkee li ñuy wax dëgg la mm-hmm. état du moom moom réew mi moo yilif réew mi na dem ci plateau yi wax ak ñoom teg leen ay daan fii ak mbas mi di jeex ku fi teg télé film wala émission bu ñàkk fayda ñu alamaan la waaw donc damay am fexe leen ba wut ay boromi xam-xam ay docteur ay boromi xam-xam toog wax ak population bi damaa jàpp ne bu fekkoon nit lii mbir mi dëgg la nit ñi dañuy dee noonu la ñuy def waaye sëñ bi mbas maa ngi film yaa ngi fi. Mhm. caaxaan yaa ngi fi. waaw góor jigéen yaa ngi fi. Mhm. yu bon yaa ngi fi nit ñaa ngi ci télé yiy dóor maam dangay xool télé bi da nga am Sénégal mbas amu fi. Mhm. dangay yëngoo xool ab télé suba ba ngoon jot. boo fi gis ku fi soññee mbas. ay caaxaan rek la ñuy teg. donc waaw ah, kon nag ah loolu moom. moom laa ci doon indi rek. am na solo oustaz waaw di leen jégaluwaat baax waaw. jërëjëf am na solo macha allah euh, am na solo. Euh, Fatou li ñuy wax rek dafa dellu si ci impératif communication ak impératif fexe ba li ngay tere nit ñi yow nga jiitu ci. Mhm. te loolu diine moo ko njëkk a jàngale. Mhm. donc bu fekkente ne da nga nekk kilifa goo xam ne mat nga kilifa. Mhm. xam nga taxawaay bi nga war a am ci askan wi respecté nga leen bëgg nga leen te seen intérêt moo la fi tax a toog. te lépp loo xamante ñu ngi leen koy indil te arrangé wu leen doo ca da nga xeex ba xam ci sa tànk tubay mm-hmm. dinga fexe ba lépp loo leen tegalati yow nga jiitu ci yow ak sa njaboot mm-hmm. jiitu sa yow ak say jegeñaale pour que ñoom ñu mën a xam ne lii amul danger mm-hmm. mais bu fekkente ne euh, mbir dafa ñëw nga ne nit ñi ne ñu tënku ci lii fekk yow toujours ñu gis la gis sa njaboot gis ñi nga xam ne ñoom nga njaboote ñu jiite leen ñu nekk si leneen lu bokkut ak lañ tere woon bu boobaa nag dañuy taxaw féttarlu mhm. te féttarlu nag bu amee li ciy mujj mooy nañu defante rek mhm. nit ñi nañu bañ mais également nañu fexe nañu leen contraindre ñu accepter li nga xam ne moom lañ leen di tegal mhm. mooy indi jaamarloo yu bari yeeg force de l'ordre yeeg force de police yi loolu moo ko waral parce que mais bu fekkonte woon ne dañoo teg mbir mi fañ ko waroon a teg fexe ba nekk les premiers à donner le bon exemple kon bu boobaa du ñu الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله di ñu leen ziar alhamdulilah naka ngeen def ak réew mi rek ñoo ngi sant sant bu baax a baax alhamdulilah macha allah waaw ñu ngi wax rek ci côté mbas mi maanaam ak seetlu gu ndaw gi ñu ci am rek waaw oustaz bi génn léegi nag rafetlu nañu lu mu wax bu baax a baax te genre nit ñi mel nii ñun lañu bëgg macha allah jërëjëf ñun ñi bu ñuy wax sa xel dafay dal wallahi azim parce que dañuy teg ko ci yar teg ko ci teggin nam nek sama point de vue gis nga ci mbass mi ci aduna bi gis nga ni mako jappé ren dong la hmm moy nit ñi dañoo ñak julli ci yenen bi hmm ndeysaan gis nga bu ñu jëlé lepp ñu dalla wat ko suñu borom hmm wallahi mm-hmm. azim mbass mi de gis nga dama japp ni dañoo togn yenen bi xam nga ñu ko togné hmm manam gis nga tay ji ni melentane bu doon dox sa juroom melentane bu ñu doon dox sa tank hmm ben mat la ci hmm boy boy boy xol bi la mat da ngay faxas yépp rek mm-hmm. man bi nga duwaré bo xamanteni sax mat la hmm looloo waral tey problème mu àdduna bii problème mu mbas mi. ren une installation suñu borom am na wax nañu ci avant même boo ko tooñee. nit ñi ne si àdduna bi buñ ko mun defat moom mu fajal boppam. man damaa jàpp ne gis nga ñaaw tey fi ñu doon jël di ko teg ci. yeneen ci gis nga yi yëpp romb. damaa jàpp ne looloo metti suñu borom ba mu indil ñu mbas mi nii. ñu julli di àndandoo ñu gerloo mm-hmm. ci yonent bi wallaahi azim bu ñu ko defee ndax ñu jóge bi mais gis nga mm-hmm. ba léegi nii yaa ngi koy dégg rek ba barki dé moo njaay rek président France bu ngi jukaat di waxaat ci yonent bi bàyyeegul ba léegi mm-hmm. mbas mi du fi gaaw a jóge billaahi taalaahi du fi gaaw a jóge parce que joxuñu suñu borom li mu moom joxuñu yonent sallallahu alayhi wa sallam li mu moom chaque jour ñu ngi toroxal diine chaque jour ñu ngi tuutal diine chaque jour ñu mbas mi di ko jig léegi suñu borom nag genre njiit yu mel noonu lay jël nag tegal ñu ko fi ñu mhm. ñuy toroxal gis nga suñu réew mi nu mu mel suñu toll nii góor yëpp kenn mënatul xamee léegi kenn mhm. mënatul xamee kan mooy gor ak kan moo dul góor mhm. mais gis nga bu ñu tegee yeneen bi place am def suñu borom place am billaahi wallaahi taalaahi mbas mi jóge ci ak jàmm ak salaam mais tant que ñu ngi jël bi di ko tuutal di ko teg ci daram ni nga xamante ni mhm. ah itam bëgg dina bëgg suñu borom bëgg ko mhm. ci genre ak yéen nit ñi rek la ñuy dëkk rek mhm. du de tant que lii jógewu fi loolu mbas mi du fi jóge sama sama ma jërëjëf euh, mbokk mi li mu ni am na solo lool Fatou. Mm, am na solo am na solo dañuy jàpp rek xam nga li muy wax dafa am solo am na solo mm-hmm. Mm-hmm. dafa ne nañ julli si yonent bi mais julli si yonent bi mooy tuub ci yàlla mm-hmm. bu ñu yàlla delloo moom parce que nag yàlla dañ koo bëgg a xañ li mu moom ko teg ko ci loxo nit wala ñu teg ko ci loxol seytaan dañ koy jël delloo ko li mu moom su ko jéggalu tuub mu xam ne ñii liy dëggal ci ñoom mu jëlal ñu fi lii mais tant que ñu ngi jël yeneen i pexe nekk suñuy pexe boobu jàpp ne lii dina saafaraw dina yëg boo tefee dina fi yag mhm. pronostic bi ñi nga xam ay borom xam-xam lañu japp nañ ne lii jógee gu fi. Mhm. donc on est avec le virus ba ci kanam kanam. donc pour dire que yalla rek mo ci mën a dimbali. Allah Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala nabiin ada fil huda wal karam assalamualaikum waalaikumsalam ni nga ziar waji pap bokk ziar na le wul talib oustaz talib oustaz mo wo ya naka yaram bi mba yaangi feex ma def ne 10 heures bu lek ma tacc tay tay yalla lu bax lu bax dombul deug la waaw góoru Fatima mooy ñëw. ndeysaan dëgg la kontaan naa de kontaan naa de. <laughs> waaw ak xaritu waa ji Pape. xaritu waa ji Pape allah. macha allah man ci loxo oustaz rek. ndeysaan mu mu wasaare ko ci ñëpp. waaw ak président Alphonse. auditeurs yëpp ak président. waaw macha allah. Fatima. mais naka yaram bi maa yaa ngi feex d'abord. waaw ñu ngi sant suñu borom bu baax. Ah, yan na sant yàgg waaye yan na yàlla feexal. ñu ngi ñu ngi sant yàlla macha allah. émission bi sax moo tax mënaguma woon génn. ndeysaan. parce que xam nga yéen li ngeen génnee. Mm-hmm. dafa am solo mais dina jafe nag pour mu faju mhm. ndax euh, olof nee na weñ gi dafa bañ ci mbañ a xaaj na paap moom mooy gën a dégg olof boobu mhm. dama dégg gën a góor ba ci dem ndeysaan di ko xool ci benn vidéo mhm. mu ne ñun duñu duñu dem fenn ñun réew mi Sénégal duñu dem fenn ah, ndax ndax nee soo tegee fukki nit juróom-ñeent yi yëpp wax rek lañuy def tey mënuñoo defar jaas yi mënuñoo mm-hmm. defar puso mënuñoo mm-hmm. defar dàll mënuñoo mm-hmm. ñaw mënuñoo def dara te loolu fi mu toll nii politique tubaab bi la ndax bi ñuy jox suñu indépendance dañoo ne culture bi nga xamante ni ñoo ko moom nii war cee développé maam fi mu toll nañ fexe ba ko jël ay nit ñu ñun ñun dénk leen fi ne li nga xamante ne mooy liggéey boobu ne leen fi mu toll nii aussi suñu xaalis bi nga xamante ni moom la ñuy dunde ñun ñoom ñoo ñu garanti nañ fexe ba loolu fi mu toll nii fi mu toll na sax takk. Mm-hmm. fexe suñu langue bi nga xam te ni ñoo ko moom. buñ mm-hmm. ci jariñu mukk. Mm-hmm. tey boo xoolee fukki nit Sénégal. li ñuy làkk mooy nasaraan. mooy suñu làkk ñun. mais juróom-ñeent yi dégguñu ko. soo gisee maanaam fi mu toll nii euh, lii di am nii nga xam te ni manque de communication yi di am. toujours li nu war a waxal askan wi dañ koy wax ci kàllaama tubaab. dafa ne juróom-ñeent yi nga xam te ni ñoo fiy dund ci fukki nit daanaka dégguñu tubaab. Mhm. moo tax pëcc xool bi ak réeróo bi mu ñàkk. Mhm. Chine actuellement lan moo leen développé seen langue. Mhm. ak seen culture ak seen valeur. tey suñ tool yi àdduna bi ni mu demee tey suñu valeur bi nga xam te ne mooy suñu langue bi nu moom nii. suñ ko toogoon jàngal suñu doom. ay valeur ak culture. ba ñu xam seen bopp ba Nations Unies suñu demantee di foo olof ba leen ko traduire àdduna bi yëpp dégg ko. mais ñetti téeméeri at yoo xamante ni ñoo ngi ci. maanaam euh, colonisation. Mm-hmm. néo colonisation ñëw. Mm-hmm. ñoo jox ñu benn indépendance boo xamante ne dañu ko jox ci mm-hmm. forme mais fond bi moom lañ suñu bopp. comprendre léegi nag le problème a nekk mooy. wax rek la ñu jàngal moo tax réew mi tardé. su may tënk nag mooy tey Fatima. est-ce que soo jógoon tey ne ndar laa jëm. xëy fajar. jaar yoon faal. da egg ndar. kon suñu ñun dañoo jaaroon ci yoon te nag képp ku jaar ci ñàll yi mhm. man jàpp naa ne dëkk ba nga bëgg a egg doo fa doo fa egg te fi mu toll nii nit su wéree ci àll mhm. tàmmul ko ku dindi mhm. fi mu toll nii su amul ndimbal suñu borom dafay dee dafay tumuraange ñun loolu moo dal ñu Sénégal wax ji fi mu toll nii yàgg na rafet na yoon la waaye fi mu toll nii est-ce que boobu ba léegi ñun ñoo koy jëriñoo kon dal fa jot ñu taxaw xoolaat suñu bopp man damay toog damay tiit parce que li tax may tiit mooy réew mi kanam la jëm ci yi ngeen wax yëpp nag. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que tey wala Pape wax na ko sànq. nee na mm-hmm. théâtre yi wala nga war a indi théâtre boo xamante ni du am kenn ku ko taxaw. parce que tey télé ñaata chaîne ñoo fi nekk seen télévision. lu rek la ñuy wane suba ba ngoon yu ñàkk fayda nag yu ñàkk fayda boo xamante ni sax di ko animé dañuy xam ne ñoom yi ñu def ni fi toll ni amul xorom amul suukar amul dara ñoom dañ dul xam toll ni kon am ba pare suñu njiit yi aussi fi faible xoolal di wax na ko sànq. dégg mu njiit réew mi maam soxnaam bi muy taxaw di dama dem dama am dama mujj am kersa. Mm-hmm. parce que ay fataaya la wax def ay baax baax ci réew mi ak fi mu toll. Mm-hmm. ak fi fi ñu toll tey. <laughs> waaw léegi léegi il faut ñun tamit parfois. ñun mm-hmm. vraiment sëñ bi li mu wax sànq si Abdoulaye Diop. mais mooy affaire bi ñun problème mu njiit la am. te nag gis nga Omar Omar bul xataa. wax nañ ni suñu pël jàpp naa ne bokk na ci ñu gën a maanu. keroog bi mu génne àdduna doomam Abdoulaye yàlla dafa def mu gis ko mu ne ko noo nekkee mu ne ko suñu borom fukki at ak ñaar ñi yoo xam daf may isaab. Ah. ci jamono bi ma jiitee jullit yi ab boobu moo doon defar. Mm-hmm. maanaam defaruma ko ab sàmm jaar fa. Mm-hmm. fi mu benn juróom loru fa. loolu damay isaaba fukki at ak ñaar. léegi njiit bu nekk nag kon ak sàmm bu nekk suba yow fi toll nii suñu borom dina laaj la joxoon noo ko doxee. Mm-hmm. mais ñi kon ñi ngi jiite xamuñu ñoom responsabilité bi la suñu borom jox. walaay xamuñu ko te li ko waral nag mooy ñàkk yaru diine. donc ñàkk yaru diine dong moo ko waral. dafa am donc. yéen rek seen rôle def ngeen ko. Mm-hmm. seen jaan wàcc na. Mhm. yàlla nañu yàlla ñu yërëm jàppale ñu. ba soppali ñu suñu réew mi. ba fi toll ëllëg xëy na bii ñëw. Mhm. mën a tegaat réew mi ci yoon. jërëjëf li mhm. daal mooy sumay kàddu di leen sant di leen gërëm wa salaam. jërëjëf euh, Gassama di ko ñaanal mu féex ak jàmm. macha ah. allah di ko ñaanal vraiment yàlla suñu borom defal ko tawféex. defal ko wér boo xamante ne du ànd ak benn sekket ci feebar bi. wax dëgg yàlla ku am njëriñ la wax dëgg yàlla ndax waxam ku ko déglu jëriñu ci dëgg la te loolu la ñu soxla fii ci tribune bi ñu nekk mm-hmm. euh, soxla ñoo xamante ne ay nitu dëgg la ñuy doon ñoo xam ne bu ñuy wax yàlla rek moo leen di tax a wax mm-hmm. te yàlla daf ñu may chance boobu nag ñu am ko si si yor yoru kañam jërëjëf xam nga faati euh, li mu ne ñàkk yaru euh, mm-hmm. ko ñenn ñi leen d ñi leen waroon a jàppale ba dimbali leen di ñenn ci borom xam-xam yi fi ne yàkkamtu lu dul sax gis nga faati buñ la xamoon am na oustaz boo xam ne boo xamoon ni Fatima xam na ministre sàngam wala député sàngam. Mm. li mu lay njëkk a wax mooy Fatima boole maag sa waaju ah, sa waaju waay ma ci poosam. jeex na tàkk. mu sa waaju waay saa yi tamit nag bu ko defee yow boo ñëwee ci waaj. te nga naan borom xam-xam. waaw li ngay njëkk a woon waaj. yow waaj ci yow la waroon a référé mm-hmm. di doxal. Mm-hmm. mais li ngay njëkk a waaj mooy ak doy di. waaw mooy sa poche bi nga may làmbal daal fii yaa ngi koy làmb waaw doo dëkk waaw waaw waaw dëgg moom doo ko waaw waaw la la la la la góor ga waxoon waaw nee na nee na nee na ki tey jaay ay ticket mm-hmm. waaw ngir wax fas ya nekk ca biti réew kan moo cee raw mm-hmm. moom moom moom jaayam googu tekkiwul dara lu dul roj sa pas-pas ak sa imaan mm-hmm. ngir wal leen ni leen wax ma yéen yéen waa dëkk bi kaay leen wax ma ko fi dàq wax naka sudul noonu waaw mën na gis gaa yi daw si ndeysaan rangaloo <laughs> kaay moom la ni maa gën a garaaw. <laughs> waaw kaay moom la ni maa dàq wax lu dul dëgg. waaw nee la jox ma benn kayit. waaw bon bindal cinq. bindal dix bindal deux bindal trois. Mhm. keneen jóge fee ni bii lay waxul dëgg. Mhm. tey moo wax la ni maa ko dàq kàcc. Mhm. waaw yow bindal ma nangam ak sàngam sàngam. nee na résultat yi génn ñu jàppoo ko noonu. ngeen ñàkk seen xaalis te dangeen ngeen di fay da ngeen di fay pour wane ni man maa dàq kàcc. waaw résultat yi génn yéen ñëpp ngeen daanu. boo xefee kenn ko gis. mun leen jàmbaar ngeen di mun leen neexul ba neexul waaye jàmbaar ngeen di yéen ñëpp kenn wax ci dëgg. <laughs> bés waa ngeen ñëwaat. <laughs> noonu la def ba root sa pas waaw moo tax it suñu borom xam-xam yi. léeg-léeg mu gis kenn ñu naan diw mooy ànd ak diw ci parti bi man dama lay jéppi sax parce que damaa xam ne yow mii sa rôle boo ko doon def wallaay kenn du kenn du jëppi politicien kenn du xas politicien. mais waa ji Pape yow nooy gisee koo xamante ne da nga naan borom xam-xam nga kenn ku ci nekk di la dégg ngay wax di waaraate nit ñi ci wàllu diini. Hmm. nga gis weeru koor jot. ñiy hmm. saboote diini ci biir weeru koor ak ñi weeru koor sacré ci jullit hmm. nga gis loola. newoo leen déedéet lii bu leen ko def programme bi baaxul parce que yéen a ngi saboté diine déedéet mm-hmm. Mm-hmm. defoo ko de mm-hmm. lu dul dañ laa woo def seen yu ñàkk fayda yooyu ba pare ngay ñëw di indi aaya yi xadis yi nga xamante ne ah. fa la mbir ma amee fa la ko yàlla waxee pour pour jéem a layal caaxaan yooyu ci biir diine loolu maa ko gis fii ci weeru koor waaye am na fi kay borom xam-xam nga ah xam nga bu ñu demee ba lay tuddee oustaz facebook yow ngay kontaan di xoggalu ko oustaz facebook mu loolooy lan ay oustaz facebook mooy lan ah ah loolu loolu loolu tamit euh, da ngay waaw ñu xool kii allo assalamualaikum assalamualaikum allo salaamaaleykum Modou Bamba maa ngi leen di ziar ñu delloo ziar bu wér Fatima nga def maa yaa si jàmm maa ngi di ziar di jox di jox allah di leen ñaanal jàmm ak <laughs> allah di ziar oustaz Ablaye Diop moom ay waxam rek boo ko dee rek moom lépp njariñ la mhm. ay waxam rek boo ko dee déglu njariñ la mhm. ne pap mhm. waaw mais eh, waa ji Pape léegi moom xanaa da nga am café léegi da ngaa saafë café nga ne. <laughs> tey sama waa ji sama sama temps yi sama da ngaa bees temps yi xaw ma lu xew nag. at mu bees mi la. waaw at mu ah. ko laaj kii. Eh, ko Paa Aysa. waaw laaj ko ko laaj ba xam lu xew. waaw laaj ko ko. sama xarit la. <laughs> laaj ne Fatima. waaw. Ah. fi mu jamono jii fi mu bon wax dëgg sàll li ñuy wax naan problème mu mbas meeg di wax ak coow léeg lépp lor gi ñuy lor dooma feeg ci réew mii jàngoro ji du fi deñ yërmande feeg dañu feebar bi du dem waxante lu ñaaw li mi ngi ci dëkk bi mi du dem mbas mi ay téye nit ak ay alkaati ak ay garde ak yii nii jëloo ko fi de Euh, oustaz Masib day wax lu am solo. waaw day wax ne bon bu fekkee ne affaire bi problème mu feebar la docteur moo koy faj mais bu fekkee ne problème mu mbas la. tuub dellu ci yàlla moo koy faj. dama yaakaar waxam jooju nag man moom lay dëggal. tuub dellu ci yàlla rek moom mooy faj. te xanaa yàlla day branché nit. ba nu yàgg mu dee branché ko te du ko yëg. même dem na ba ci sëriñ. buy ñaan nii affaire yi di nangu nii. dina def loo xamante ne yàlla da koy débranché. bu ko defee dootul lu waay nangu. Mhm. dootul ñaanal si moom lu yàlla nangu. boo bu ko defee nag léegi moom ñu naan sëriñ bi la mu waxoon defu ko. Mhm. wala kii mu waxoon defu ko dem na ba ci président ak lépp fi nga moom bu njëkk ba ba mu daan gis police wala al wala gendarme da ngay tiit mais léegi xool xale yi demañ ba faaleetuñu police faaleetuñu gendarme faaleetuñu dara. loolu mhm. yomb gi ñu yomb ci ñoom ak liñ leen di wax duñ ci dara affaire yooyu moo ko waral. wasalaam. incha allah euh, Modou Bamba. am na solo. am na solo ah ku mel si xuloo yab la. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> ah dañoo dem ba nga xamante ne bii euh, xale yeeg. population yëpp dem nañ ba xam ne ñii dañuy yaata rek. dañuy xoqatalaate kon bu ñu leen faale. tout simplement parce que euh, seen taxawaay ba ñu waroon am ba ñu am dignité ci bëtu askan wi moom la ñu amul. ba tax askan wi yëpp démystifier leen. teg leen foo xamante ne mënatuñu yëkkati ku mukk ci seen bët. waaw boo demee ba mu gëm ni Fatima mi ay dóor rek la sekk ak mm. ay dóor rek la sekk ak man. da ngay dem sa ba dootoo ko faale. ne xam na ni bu dóor doon tax a dégg mbaam dee su ko dóor te dóor bu bari ci nit dërkis lay indi. waaw nit daal waaw dox na dina tàkk bokk na ci li gën a li gën a neex te gën a yombal mooy xool nit nga wax. Eh. wala nga wax ak mu dégg li nga wax. bu njëkk de noonu lañ daan yare da ngay gis suñu yaay yi par exemple bu gan ne bët bi mooy jógal ngeen abal ma. biir hmm, biir hmm, salle bi. bu hmm. leen fi toog. bu ko defee ngeen daal di génn ndànk am na bët boo xam ne bu ñu la ko xoolee nag. Ah. dala leer ne bu gan gi demee di nga ñam guy. moom waaw moom tey nga de. sama xarit ba nee kër ga mu yoroon ndeysaan ku musal lekk rek ku mos a lekk ba sa place jeex rek da ngay jóg nee na nee na ndeysaan affaire bi métti ci moom ndeysaan ndax moom daa <laughs> <laughs> waaw bu pare sonn ci kër gi uh-huh. waaye nee na benn bis papaam ñëw yenn si ci kër gi uh-huh. nee na mu mel ne lu ñëw rek mel ni lu uufu ci papaam uh-huh. waaw maire bi ko yar nag léeg-léeg mu sigg xool ko ci boolu ndab li waaye moom moom daal nee fa mu sigg daal la sëgg rek nee na laa tëdd na ceeb yëpp walaay ndeysaan jaar ci diggu bool ba dagg lu ma bëgg dagg. loo xam ne <laughs> da sam pap rek. da sam pap. Uh-huh. na boobu léeg-léeg maire bi xaw a def benn bruit pour ma pour ma sëggi. Uh-huh. ba mu xool ma ci bët pour xam ni ma li ngay def jaaduwul. Uh-huh. na ma sëgg rek nee na daal damaa sëgg ba ba ba suur. suur doog a jóg waaw doog a jóg <laughs> waaw ndaxte maire bi jël la yéen. ba noté ko waaw. <laughs> nee na xam naa bu sam papa demee te tey ma dee waaye man moom naa suur rek. Oh. buñ ma dóoree gannaaw. waaw jeex tak tàkk. Ah. bu eh, démb looloo amoon. ndeysaan waaw ah, waaye jàpp nañu dóor di fitnaal ah. eh, am na bis dama gis benn action boo xam ni. mu mm-hmm. ne cay waxtaan de li ma wax si Maguette wax sànq guerre mondiale sax. Mm-hmm. ci cessez-le-feu la mujjee. Mm-hmm. dañ koo waxtaanee. Eh, benn marche bu amoon. su ma juumul marche téeri la. ñu bëri lool lool lool lool lool. macha allah ñu ñëw ba marché bu mag. ñu ñëw. bëgg a bëgg ñoom it jaar foo xam ni xëy na wan nangu la ñu leen foofu. Hmm. dañoo bëggoon continuer marché bi yépp waaw léegi am na ay am na ay yenn forces de yu taxaw ñoom taxawoon ngir ngir jàmmaarloog ñoom ci wàllu doole. Hmm. waaw nga xam ne loolu moom mënul nekk da ngay gaañ nit ñi wala coow daal fay am rek. tout à fait ma gis kenn ci ñoom koo xam ni mooy seen supérieur. Hmm. moom xel la defee. xel waaw daa ñëw taxaw ñëpp déglu ko mu wax ak tekk. ak yar ak tey. ñépp daal di jàdd fekk daan leen noon fii ngeen di jàddee ndax hmm. nangam ak sa wax wax gis nga ba mu ca paree hmm. ñëpp dañoo ne ko baalu ñàkk ñëpp jàdd ah man cey ndekete lu xel mënta defar rek hmm. ci fitna ak doole mënu ko defar waaw ah, parce que yaa ngi utiliser fitna la nga yor bu jeexee da ngay daw xëccoo baaxul xëccoo baaxul xëccoo moom day indi ñëkk te ñëkk bu ñëwee rek confrontation am ñu xool ki ba xam allo salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah baax baax dellu ziar ba. naka yëpp a euh, ngeen di waxtaanee vraiment am na lool lool lool. Mhm, jaar di ngeen fa ngeen daan jaar. Mhm. jërëjëf. Euh, yàlla waaw. amiin amiin te dimbali ñu ci ñuy dégg di topp. parce que mhm. déglu moom am na fi léegi Sénégal. déglu am na fi mais dégg moo fi amatul. te dafay dégg amul topp day daal di loolu mooy loolu mooy hmm. li ngeen di jooy nii nag euh, amati solo waaye li mbokk mi génn sànq rek mooy Modou Bamba. Hmm. Hmm. Euh, dafa mel ni junj na ko ci waxam nee na. dañoo joxatul diine ji àqam. waaye loolu li ko sabab mooy dañoo joxatul borom diine ji gëddaam. لي ما قدر الله حق قدري يلا مودن بيطوب دوهني دم موتخ جغل المستمر في بيج بيج سبيل الموجة ما نبيور اللبن الله أكبر أنا قال بني بق ما بني بق ريمي نورمال بني بق ريمي جاريون بني بق دندو دندو مخير تو أم تلو قتك ما يسوق يالك man semaine bi dama am kersa wallaay dama toog di tiit. Mhm. jël sama cours di jéggulu sama borom parce que mën na am am naa ci part de responsabilité bi xam. Mhm. dafa am benn histoire bu xew. Mhm. je ne sais pas ndax bi politique la wala du loolu wóoru histoire bi semaine bi mu xewee. am ñaari histoire la yoo xam ñoo bokk booy xool même histoire. benn bi ma télévision yi rajo yi ñëpp wax ci journaux yi bind ci. réseaux sociaux yi ñëpp kenn ku nekk ci commentaire ñu ci ëpp li hmm. ma ko analysé dafa mel ni hmm. dama yàlla baal ngeen baal ma ko ci gàddu bi dafa mel ni ak naa fekk ci gën dëgg hmm. dañu wax ne dafa am benn policier bu su sujjootal ab sëriñam sukkal ko ñu dàq ko yëpp jóg dañu ko woon dàq affaire bi na nangam nangam coow gauche coow droite c'est bien beau parce que kenn ku nekk peut-être ngay xalaat yi ngay waxee mais li ci gën a yéeme mooy ñeenti que yi ñu doon coow loolu. ci la verdict wàcc. Mm-hmm. tribunal Dakar. ñu mm-hmm. dàq ñaari liggéeykat seen borom lañ doon sujootal waa ji o la. Mm-hmm. ci benn pharmacie mooy les les pharmaciens de de wala vendeur de pharmacie de pharmacie pharmacie Guigon. dem rek romb naa ko sama xol. parce que dégguma ku ci posé débat. dégguma plateau bu ci def émission. dégguma kenn ku ci wax te ñoom bi ñu demee tribunal li ñuy wax dafa leer. ñaar lañu ci ci <laughs> doon jaaye mhm. julli jot na parce que ñu ngi presque à vingt cinq de la mosquée mhm. bi ñu de kenn ki dem julli keneen ki toog jaay mhm. bi ñu paree ki doon julli ñëw keneen ki dem julli loolu la ñu wax ñu ni ils n'ont jamais abandonné poste mosuñu ko ñoo ñoom indi benn dossier ni waa ji noonu dañu abandonné poste ci la sukkandiku pour dàq lañ di julli <laughs> mais ku nekk xam nañ julli gee tax ñu dàq te dëgg hmm. di def ay débat di ci journal xam ne hmm. nit lu su jootal hmm. wax nag dina métti mais il faut ñu wax ko ba pare ñëpp ñaar ñoo xamante ni seen boroom waxtu wee jot yan di solo moo ñu indil ba fi mu te ñu ci yaakaar ëllëg jaamu ci yàlla yërëm mu nekk bagar bi xeex ba julli jot jibril wàcc ne ko sa boroom nee na julli amul amul xaar xaaj leen trouve yi ñuy julli ñu jël défense bu ñu paree ñeneen ñu julli ñu ñëw. xanaa kon ñoom loolu en plein en na ma ba ci kanam yàlla. Mm-hmm. Mm-hmm. li a si nekk la voix des sans voix. Mm-hmm. laa gëm. donc comme que aw fu ma ko jot ma jotal ko suñu mbokk yi déglu yëpp ñu bokk. su jàpp nañu. wala ñàkk a respecté suñu borom jàpp nañ wala wala ñàkkal fayda fayda diine ji ci ni ko yàlla bëggee jox nañu diine ji peut-être ci ni ñuy neex ñoom mhm. suñuy bakkan mhm. ak suñu réer mi est jox nañ ko ni ko yàlla bëggee gëdd bi ñu ko war a jox mhm. surtout su fekkee ne ni yooyu yëpp jàpp nañu kon ba mu ñu cee wax kon nañ leen ñaanal yàlla boog yàlla may leen xëyum jàmm boog mu gën sax ñu ñàkk mbokk yi vraiment sama xol neexul ne tey mënu ma koon jooytu parce que même semaine bi la. Hmm. ñëpp braqué wu fële bàyyi ñi nga xam ne ay yor nañ ay njaboot yor ay baay yor ay doom doon liggéey. normal amul lenn mu leen mën a mën a critiqué ci seen seen borom. yu dul seen borom ñu dàq leen kenn waxu. Hmm. Ah, maa ngi jégalu nag xam naa mën naa am euh, doy na am na solo waaye maa ngi koy di leen daal yàlla gën leen a jàppale gën leen a sàmm gën leen aar. jërëjëf yëkkati rek kaw ca kanam. Hmm. di wax rek la ma daan wax suñu mbokk auditeurs yi ñun ci gën a jàpp. Mm-hmm. kenn ku ne na nga toog sa rox noo ciy jàppee. Mm-hmm. pour mu gën a dem ca kaw ci kanam mm-hmm. wasalaam maa ngi jégalu di nuyu président sama président parti aussi. <laughs> yaa <laughs> naa ne parti bi bi moom léegi moom. xam naa bëgg a yëngal. bi moom dafa dafa bari ay kii léegi <laughs> ay nouveaux adhérents. Ah. macha allah mais waa ji Pape li mu wax noonu. wallaay c'est vrai que seetlu wuñ ko nag. wallaay seetlu ñu bari échappé na leen. parce que ñaari mbir la yo xamanteni ño bokk cause mm-hmm. cause mooy sujjoot ak sujud mm-hmm. ki dafa sujjootal net mm-hmm. ñu yëkëti ko ci kaw jox ko xaaliss jox ko auto jox ko ay terrain jox ko ay millions ñi sujjootal seen borom subhanahu wa taala ñu dakk ñu atté len ba joxe verdict ñu dakk len parce que ne pat waxuma la ay millions de mais ken waxu ci kon lolu kenn ku ci nek interpeller na la kenn ku ci nek togal xalat jaadu nam wul ñu jéem xolat xoolaat wat suñu taxaway ben ci li ñuy joytu mhm. nga dem ci yenn euh, service yi parce que di nga gis ay heure de pointe yoo xam ni da lay leer ne lii dara tax ko woon a jóg loolu dul xeex diine loolu dul xeex diine waaw xam nga heure de pointe yoo xam ne tubaab bi moo ko mhm. moom seen service moom seen entreprise mhm. waroon a xool nu ngeen di orienté nu ngeen di defaraatee bon nu mu gàtt gàtt gàtt heure de prière moom ngeen di ko jël pause dem di jullit lu mu bon ngeen am pause prière dix minutes waaw ndax prière guddul waaw lu gàtt la loo xam ne en cinq minutes sax mën nga koo julli bu jeex. waaw man nu ma la mën a mayee nga añ. te mënuma laa may yow. nga julli <laughs> waaw xam nga te liggéey bi doon doon doon yéenum neen euh, ba noppi tamit Fati euh, boo xoolee tamit euh, gis nga suñu diini ji. Mm-hmm. xaw ma xaw ma defe naa gasamaa ko xaw ma ko ko feer sax. Mm-hmm. neexul ba neexul nag waaye Fati li ñu bàyyi ak yàlla nag daa néew trop. waaw ñun dañuy jaamu yàlla selon ñun ni ñu ko sentiree. Mm-hmm. mais defe woon ko moom ni mu ko santaane waaw xam nga dafa mel ni mm-hmm. nga ne rek yonent sax jarul woon nga ñu koy yónnee mm-hmm. ndax ñun ni mu ñu santee ñun defee woonu noonu waaw moo tax may laaj ñun kan la ñuy roy ndax damay gis pratique yu bëri faati nit naka la la mën a jiitee ñun déjà suñu autorités yi boo ñu invité conférence buñ ñëwee toog benn rek léeg-léeg wala ni dégluwuñ la sax mooy ñoom enveloppe bi ñu yor daal jàpp nañ ni moo leen may gëdd. Ah. ñu war leen teg ci place bu baax bi ah ñu war leen a teeru. te benn du duñ fa toog ba mu jeex. Mhm. te balaa ñoo dem dinañu dinañu perturber sa conférence. Mhm. jël fa kàddu du wax ay yi ay waxi naxa saxandal. Mhm. beneen bi mooy ñoom seen yi ñu am ak su néew te mu war a doxal réew mi. ins maanaam seen instance yooyu. bu ñu fa dajee sax waxtu julli yu bëri fa leen di fekk. ñu koy def en direct te kenn du jóg. wallaahi wallaahi. waaw léegi léegi léegi ku mel noonu. su ba mu jotaat di voté waat ngir yor réew mi. Mhm. est-ce que war ngaa jox réew mi ba pare di xalaat ci moom mu mu ñoŋalal la. sa diine mais du ko def. du ko def du ko def parce que en réalité wanoon na la ne du ma ko def. waaw waaw yaa ko bëggoon a gëm nag jàpp dina ko def mais yow xamoon nga ne du ko def parce que wanoon na la ko ba mu leer. waaw te nit ñi tamit réew mi dañoo neexut a tàgg faat ñoom dafa mel ni yii moo leen neex wax dëgg yàlla dafa mel ni yii neex nag. <laughs> ah vraiment ñun man daal xam naa ne ku féete woo wax daal di nga sonn lool nga sonn lool parce mm. réew mi lu ñu war a wax doo nga fi ne finalement da ngay mujj soof da mujj bari mais nag lu ñuy wax rek moo fi ne kon nag euh, daal doy na war góor naan de ne na ma mm. ah, waxagu leen dara de waxagu leen dara de ma ne ko déet mu ne atum 2021 bii ngeen di gën a bari lu ngeen di wax ayca maa ngi nuyu bu baax euh, Baba Gueye euh, borom Jakarta di ko nuyu bu baax. Mhm. di nuyu waa marché marché marché ngelaw la Fatick. marché ngelaw waaw. mu ngoog waa marché ngelaw ñoom euh, Cheikh Tall ak. ngoog ñoom Ndiaga ak. ñoom Xarma Cheikh Lo. ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. mu ngoog si safoo gi ñu safoo yor yoru Kajoor. macha am développement Pape Cheikh Pape Cheikh gën naa laa dégg de mbaa yaa ci mm, jàmm rek. Pape Cheikh mu ngoog ñu xool kii dernier auditeur mbaa auditrice allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw bi bi benn ministère naa jàkkaarloog yow. ah di ziar ak di màggal rek. waaw waaw di rafetlu sa waxtaan. jërëjëf waaw moo tax man man ma su ma jàkkaarloo yow rek. ah sama gars yi dañuy mer. ñëpp ñaar ñu ngi lay ziar. ah jërëjëf kon maa ngi gàttal. ah di la parce que nekk maa ngi lay ziar ak di la màggal daal. jërëjëf waaw jërëjëf waa ñu baax. jërëjëf jërëjëf eh, terminal Fatima. Mhm. caabi ah, neen sama xarit la. waaw kii di sonné xanaa ma bañ a tas yaakaar rek. jël ko une minute rek. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. a minute Pape naa la moom ah maa ngi delloo ziar. Pape Sénégal sama xol moo fees moo tax comme ni waaj a tàggatoo bàyyi ma waaxu waaxu yu daw. <laughs> <laughs> xam xam sama xol xam na feesee waa ji mujjee woote sànq. Ah. lu mu wax ne kee dafa kee kee dafa si géetal suñu borom ñu dàq. ndeysaan di si géetal nit ñu ñu ñu ñu dàq ko ñu mhm. jël ki nga xamante ne moom moo si géetal doomu aadama ñu dàq ko mais mhm. ñoom ñaar ñëpp ngëm-ngëmu doomu aadama waa ji kenn du ko fooyee parce mhm. que alxuraan mais ñun suñu boo ñun suñu suñu suñu réew dañ ñoo jàngal nañu suñu kilifa diine lañu war a gën a mën a jox jër yàlla suñu borom dañ ma baal de ku gëm kilifa diine yi laa nag mhm. ku leen wóolu laa ku leen mhm. yaakaar laa mhm. kenn ku si nekk am na am na woy bu ma la jénneel wala xasida boo xam ne daf naa ko si yow waaye nag bu suñu borom taxawee yàlla suñu boroom moo taxaw dëgg la waa dëgg la ñee ñu dàq ñee nuñ ko layalee comme maanaam ñoom si gàttal ñun doomu aadama yi am nañ ci réew mi àq mais suñu borom amul si ñoom àq ñun loolu lañ jàpp waa droit de l'homme mel nañ dem nañ ba léegi jàpp nañ ne suñu borom subhaanahu wa taala mhm. ñoom ñoo gën a yërëm sax jaame suñu borom mhm. waaw te suñu borom moom moo ñu bind am na yenn yenn ci yenn yoo xamante ne kenn du ko xool bul teewee nag ñu ñu man man ko dàq dañoo juum ndaxte seeni kilifa mhm. bu ñu demee ci bu ñu demee ci programme diine noonu la ñuy def dañuy sukk seen kër ci kanamu sëriñ ñooñu daa ko noonu dañoo juum. war mm, nga jàpp lu leen daloon ci Ousmane Sonko nag moo leen nar a dalaat. Mm. Mm. ñun suñu réew mi ba ca moog rëbine mbedd ñoo yem rek. wasalaam. dem wax xam naa ne pëcc xool dina bëri ah bëri day na waar. <laughs> wallaay wallaay wallaay day xam naa ne ma bàyyi la nga tàggoo rek incha allah oh, rek euh, ñu tàggoo rek ak euh, suñu mbokki auditeurs yi. di sant ñëpp ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñu ngi doon déglu émission bi. di beral sant nag ñi doon woote donc wax dëgg yàlla euh, kenn amul seen fay comme li may wax rek euh, émission bi tey bu tollee fi mu toll lépp ñoom la kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci kóolute gi ak ci àndandoo bi di leen jox di daje ëllëg incha allah si si si si si beneen numéro jërëjëf. Assane Fall maa ngi lay ziar bu baax a baax moo may woo noonu suuf waaye malheureusement Assane mënu ma laa jël ah tabarkàlla après nga woowaat ma. Euh, yàggu lool néew lool ne réewum Sénégal amul sëriñ amul jox alal mu doon sa ma ne ko baay mu ne ma mooy loolu man ni su ma ma déglu ko def naa ci bolok saa ma jaaxle ne la ma waxoon waxeet ànd waa deuxième tour mbir mago su ko gëmee su ay ci ma ngoog ña ngi koy jaajëfal bu euh, baax a baax a baax di jaajëfal soxna Faati ci ànd bi nga xam ne moom la àndoon ak ñun ci ñaareel ak euh, ñetteelu sumb gi euh, ginnaaw xibaar yi leer tóor macha allah di jaajëfal bu baax oustaz Abdoulaye ñi nga xam ni woote woon nanu ànd ak ñun ci émission bi ba tey téléphone baa ngi sonné waaye waxtu wi moo ñu xoj di jaajëfal bu a baax nga xam ne toog déglu gënaloon na leen foofu cant ak ngërëm ñeel na ni moom la ñuy àndal ci émission bi mu di leen ko may ñoom it la ñuy xool yi te di leen jaajëfal bu baax a baax